diggante marak mansé bi julu li suuf seddee nuyu naa leen yàgg nañu ko wax fii ci plateau jàkkaarloo bi dañu faral di wax ne les trains qui arrivent à l'heure ne nous intéressent pas ñun ñu ne les trains qui arrivent à l'heure nous intéressent bel et bien bu ngeen seetloo ci école yi dañ ci li ñu jàngal xale yi les trains qui nous arri qui arrivent à l'heure ne nous intéressent pas juste pour jox leen notion ñu mën a appréhender lan mooy information waaye une fois sur le ak liggéey journaliste ni mu toll dafay baax également ñuy wax sur les trains qui arrivent à l'heure ngir réew buy dox di avancer jéego bu mu def dañ ko war a saytu mu mel ni kon suñu gis-gis boobu dafa méngoo ak taxaw seetlu boo xam ni kenn suñu natango def na ko ci ayu bés bi ci journal l'enquête muy ku ñuy wax euh, Jean Meïssa Diop taskatu xibaar bu ñu ràññee rawatina ci train bi arrivé à ren mooy lu jëm ci wàllug ajug màkk gi ajug màkk gi ren déggu leen ci lenn loo xamante ni rek ay impair la wala ay euh, jafe-jafe la donte sax billan bi officiel feeñagul euh, ni mu war a biree waaye dafay jekk ginnaaw fi lañ daan toog naan aj gi nangam aj gi nangam bu aj gi doxee nag ñu ñu ko dénkoon ñu war leen a ndokkeel gën leen a ñaax xool la nga xamante ni xëy na moom moo cay euh, la koy war a yokk ñu dolli leen ko kon ginnaaw fi lañ ko daan waxee te fi lañ koy waxee yàlla dogal xëy na bu ko soobee fi la ñuy wéy di ko waxee ah du ñu def rek lu dul ku nekk si ñi fi daan toog di ko wax wax si ana lan mooy xalaatam ci train boobu nga xam ni arrivé na à l'heure te muy loo xam ni it bokk na ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def Bouba salaamaaleykum. <laughs> waaleykum salaam saxaar gi agsi na si waxtu wañ ko doon xaare maanaam aj gi ren dégguñu si benn tolof tolof waaw mais sa saxaar bu egsi bu egsi ci waxtu wi ko doon xaare du lu extraordinaire dafa war a ci ci waxtu yu ñu ko doon xaare loolu moom mooy am solo c'est pas une exception hmm. euh, que mbir yi war a jaar fu mu war a jaar yàlla nag moom mooy dogal hmm. euh, ñi fa nga xam ne génn nañ fa àddina démb daaw yàlla moo dogaloon ni foofu la seen euh, fan di yem hmm. mais effectivement ku def li nga war a def ñu wax la li nga la war a wax je pense que alhamdulilah ren dégguñu ci coow dañ koy sant yàlla di wax que ni Euh, man damay tout le temps ni lii nii du ma tàcc xam nga tax may tàcc. Mhm. lu normal bés bu ñu commencé nangu ni lii moom moo war a nekk tout le temps. Mhm. ah donc commencé nañ ko dañu jël même disposition yi nga xam ne jël nañ ko ren jël ko ci yeneen année yi. Mhm. ba nga xam ne effectivement nit ñi dinañ dem ci jàmm <coughs> dem ci jàmm. très bien euh, lu ñuy saluer la pour man parce que dama bokk si ñu doon wax très souvent. dafa dem ba meloon ni euh, benn moment Sénégal kese moo am aj màkk parce que mm. dans les autres pays euh, nit ñi dañuy dem màkk ñëwaat la vie continue normalement mais dañuy seetlu woon ne depuis un certain temps au Sénégal avant màkk problème la pendant aj bi problème la après màkk bi problème la mm-hmm. euh, mu nekkoon benn psychose benn demande sociale à la limite mm-hmm. mu am ay mesures yu ñu si jël mu aboutir je crois que c'est à saluer mais quelque part les gens doivent s'organiser c'est ça normal oui. c'est boo amee day nekk une exception alors que c'est la norme mm. les leen former préparer leen dénk leen ay responsabilités ñoom ay mission euh, spécifique am temps de préparation ak euh, moyen d'exécution donc pour man le bilan il doit être positif et que mm. ñu mm. jàll et à souhaiter également que yeneen habitudes yi faral di gis au Sénégal yoo xam ne ay ay la ay manquement euh, du yoon mm. normalité bi mooy mooy mu jaar si yoon mm. euh, mu mu bañ a jaar si yoon moo war a nekk exception bi très bien waaw dañ koy rafetlu ah c'est vrai que loolu moo war a nekk yoon. Hmm. mais buñ seetloo comme ni ko Papis waxee ki démb euh, coow li mu doon andi. wax dëgg yàlla buñ ko saafara dañ ko dañ ko war a rafetlu rek parce que paradoxe la woon ci àdduna boo xam ne xare dox nañ Sénégal réew yi ñu koy ràññee ci compétence am maanaam ressources humaines de qualité hmm. lu doy waar loo xam ne kenn mënu ko woon comprendre hmm. kon nag bu ñu installé benn équipe gouvernement bi jël décision ne lii dootu fi amati bu fi amee wax dëgg yàlla dañuy tàccu di ñaan ñu continuer ci euh, yoon woowu waaw tabar fakàllo di ko sant yàlla rek mm. xam nga c'est quand même extraordinaire que l'ordinaire devienne extraordinaire mm. euh, ñu toog fi di si wax mooy que rek euh, dara normal lu fi woon il faut souhaiter que lu fi ne normal mm. war a nekk suñu norme mais si lii rek si lépp la euh, bu demee ba nga xamante ne ñu ngi wax si lii mooy que am na fu ñu jógee am nañ fu ñu ne tey war nañ ko gën a saafara gën ko defaraat pour mu gën a normal si fànn yu ne Très bien. parce que amul raison pour que l'anormal soit la norme mm. donc euh, di remercier ñoo xamante ne def nañ seen liggéey ñëpp a mm. dem ñëwaat sant yàlla ak autorité yoo xamante ne quand il a fallu oser prendre ay décisions mm. def nañ ko donc il faut quand même féliciter <laughs> ah. liggéey yooyu waaw yow tam fi nga jógee pour ñëw liggéey see gontu see war nañ kaa seetaat parce que danga ragaloon a ñëw sax yoon woo wóoratul dañ fi agressé ay nit tout le temps corniche bi fii. waaw kooku. y' a pas de euh, lumière y' a waaw gis na ak yu yu yu metti fa fa xew. corniche bi booru diggante fii kër président nekk. waaw ak euh, ba si ba si kaw noonu booy wàcc. waaw maa ngi gis sax ñuy désherber temps yi. Hmm. dañ ko commencé si côté yi parce que xale yi si ñax yi lañ doon génn di la agressé di fa def nag doy doy waar rey nañ fa nit gaañ nañ fa nit. Euh, mu nekk l'une des corniches les plus belles de de bu ñu am fii. Mm. nit ñi c' pas éclairé il faut que ñu éclairer ko. nit ñi foot buy tàng fa ngay dem di dox yi vraiment mënul nekk euh, loo xamante ne amoo fa euh, sañ-sañ pour fa dox loolu daal ay saaf. war mm. saafara. très bien alors li ñu njëkk a waxtaanee tey mu jëm ci lu ñuy oowee article quatre vingt article quatre vingt yàgg nañ ko dégg ci réewum Sénégal. ñi nga xamante ni daanaka ñoo koy sem li si ëpp mooy ñi féete ci opposition waaye bu ñu accès si nguur ak ñu mu mën a doon dafa mel ni lu ñuy fàtt la wala lu ñuy tënxamlu la article 80 mooy article boobu nga xam ne ci code pénal bi moom la ñuy wax offense au chef de l'État maanaam ñàkk ormal wala teggi orma njiitu réew ba loolu euh, doon loo xam ni tëj nañ si nit kaso waaye doon loo xam ni dañu koy ñenn ñi dañu koy ñaawlu ne mbir la moo xam ni xëy na furtu lañ ko def pour ku ñu bëgg a faagagal faagagal la ci waaye itam ginnaaw bi dañu toll ci réformer lu jëm ci code pénal bi ñu ne xëy na buñ ko si dugaloon Euh, xool nu ñu koy bindaate dina baax wala ñu xool sax nu ñu ko siy jële waaye loolu dafa mel ni tamit lu ñu tënxamlu la loolu mooy solo ponk bu njëkk bi tey ci waxtaan wi balaa ñu siy sorey ñu déglu ñenn ñi nga xam ni Pape Fara nga déglu leen ci mbedd mi. en fait moom man dérangé wu ma parce que man doomu aadama njaay laa boo xam ne ku respecté sama bopp laa te tamit cër bi ma jox sama bopp moom laay jox euh, euh, bépp doomu aadama buy dund. waaw man alkati 80 bon bu amee ça me dérange parce que man mbay gëm naa ne fu ma toog maa ngi wax li ma xam di def li ma xam. waaw parce que nit tamit boo nekkee ci réew chaque jour tamit euh, lépp lay wax ak te surtout ak euh, àddina bi ni mu mel nii léegi waaw euh, jàpp naa ne naw doon wax boo xam ne wax bu sell lay doon waaw wax boo xam ne kenn du gis boppam bon ak tuuma nag moom yàgg na ci àddina tuuma moom bu ñu xoolee ku mel ne yonent yàlla Yuusufa dugg na kaso ci loo xam ne sax xamul li xew il n'a rien compris. comme dégg-dégg bi ma ci am mooy bu fekkee article article quatre-vingt muy wax dara loo xam ni njiitu réew wala keneen ku moo doon ku ne man laa duma ci d'accord parce que tamit wax nit loo xam ni ab safaan la man ma ko. tamit côté état tamit bu mu jël tamit article boobu tamit di ko mu mel ni loo xam da koy xeexe euh, am ci sàmm ku mu am ndey ak ku mu amul ndey man loolu d'accorduma ko. faw nit ñi xam lan la article du wundu ba pare xam liñ ci war a wax dëgg wala déet ndax du dëgg waaye terewul ni mooy suñu njiit. war nañ ko ormal ndaxte constitution la ba pare moo réew mi waaye nag su fekkee am na lu ñu war a mën a wax lu ci gis-gisu nit ñi gis-gisu nit ñi tarewul du offense parce que ku ci nekk na nga xalaate waaye ñoom ñoo war di bu jamono amee ñu wax dëgg-dëgg li article wu lu article wu ndaxte duñu ko war supprimer balaa ngay supprimer da ngay xam looy supprimer. parce que tamit réew mu la gën réew moo xam ne moo la gën justice rek moo la gën. bu ko fekkee tamit jóg jógte na ko pour di ci profité ay euh, di ko di ci def ay affaire am laa man je ne suis pas d'accord parce que lii mu jiite nii ndax jàpp na bés dina ñëw mu wàcc parce que nguur yàlla moo dul jeex. maître Ousseynou Fall moo fi teew maître Ousseynou Fall di awoka waaye it euh, gën a ràññeeku ci euh, taxawal maître Abdoulaye Wade mi fi nekkoon njiitu réew mi ndax awoka am la woon te yaakaar naa ne ba nëgë ni mu ngi liggéey ak moom maître ñu lay nuyu di la dalal ci plateau bi. Khalifa euh, Diakhaté maa ngi lay euh, nuyu di la sant. Hmm. di sant euh, ñu nekk fii si plateau bi yëpp. di nuyu aussi nu ñuy déglu. Hmm. très bien alors dégg nga interpellation bi nga xamante ni kenn ci micro trottoir wax nañu ko maanaam lu ñuy supprimer dañuy xam lu mu doon déjà est-ce que comme yow rek yaa fi am njàng si ñu toog fi ñëpp ci wàllu yoon ndax mën nga ñu wax ci lu gën a leer ci lu Sénégalais bi gën a mën a dégg lan mooy article quatre-vingt boobu. waaw article quatre-vingt boobu. Hmm. daanaka ñu euh, intervenir wax nañu l'essentiel bi mm. wax nga ko euh, c'est un article qui est très vague c'est un fourre-tout en fait mm. et euh, c'est un article buy buy wax affaire u tooñ kilifa buuru mm. réew mi président de la République day wax aussi atteinte à la sûreté de l'État wante c'est général article 80 bi ngay am na c'est prévu dans le la refonte du code pénal mm -hmm. mais euh, kenn envisagé wul supprimer ko c'est un peu contraire euh, su marche démocratie moderne yi. mingoowul ak di démocratie parce que soo xoolee euh, pays yu nga xam ne seen démocratie moderne la comme France wala Europe. Euh, euh, le délit offense ñooy tooñ euh, buur kooku supprimer nañ ko mm-hmm. lan mooy subsister c'est-à-dire que nit kilifa war nañ ko warmal mm-hmm. kooku nit ku nekk même soo nekkul kilifa doomu àddina war nañ la jox cër war nañ la respecter estomac koo xam ne moom moo jiite réew yëpp mu nga xam ne moom mooy représenter institution yi wante nag dafa am benn principe boo xam ne bu ñuy wax euh, un principe fondamental bu ñuy wax principe de la liberté d'expression mm. principe boobu moom la euh, moom la euh, cour euh, la cour européenne des droits de l'homme mm. ak charte africaine des droits de l'homme mm. ak pacte international sur les droits civiques jëfandikoo pour wax ne lu ñu mën a wër ormal ormal kilifa waruñu quand même euh, léser principe boobu. principe bi mooy yelleef wax li nga xalaat. yi nga xam ne nit ki am na droit d'expression mais le mooy la la liberté d'opinion. Oui. liberté d'opinion c'est quelque chose de fondamental ça euh, concerne wul seulement yéen journalistes yi. Mm -hmm. mais ñëpp la concerné. ñi nga xam ne ñi ngi si si réew mi di contribuer comme politiciens yi muy députés yi muy citoyens ordinaires yi. mais ñi ngi contribuer pour euh, développement euh, comme kaw réew mi c'est-à-dire pour l'intérêt général mm. donc euh, dès lors que ñooñu ñi ngi exprimer seen opinion seen opinion boobu mun na bañ neex ñi nga xam ne ñi ngi si si euh, si pouvoir bi mm. wante mun na aussi yokku aussi euh, parce que day participer à l'intérêt général am na kuy wax ne mm-hmm. celui qui me conteste m'instruit beaucoup plus qu'il ne m'offense mhm. maanaam si wolof nit ki ma xam ne mi ngi may weddi mhm. maa jàngat bi may am si ki may weddi moo mhm. ëpp euh, tooñ bu may def parce que ku lay weddi mun na la aussi euh, jox ay enseignement donc euh, man suma xalaat mooy délit d'offense au chef de l'État Euh, ak yeneen euh, délit de presse yi. war nañ ko xoolaat. très naa yéen euh, waaw très bien très bien Charles. waaw Khalifa xam man suma problème mooy que boo xoolee suñuy homme politique yi ñu si bëri. Mhm. boo nekkee si opposition bi dafa am lu ngay defee ak lu ngay waxee yàlla def nga jóge fa ñëw si pouvoir. Mhm. am leneen lu ngay waxee ak lu ngay defee. dootul mu mel nag nit ki bu nga gisoon si opposition ak nit bu nga gis si pouvoir bi ñaar la mm. dama lay wax rek principe marche si loolu lu bëri mun na fa xew mm. lu marche ñan lañu woon mooy ñu ne woon dans le pouvoir quand même mm. donc quand on est dans l'opposition on peut on marche on arrive au pouvoir on interdit la marche c'est quelque chose quand même de très spécial et de très sénégalais maanaam lu ñu bëgg a teg loo xamante ni ce n'est pas normal c'est une culture politique ak ay nit yoo xamante ne valeur yoo xam yuy changer en fonction de position boo nekk euh, dafa normalul buñ xoolee tey ñu ne offense au chef de l'État il y a doo xamante ne réglé na question boobu mooy la liberté d'expression boo xamante ne constitution moo ñu ko may dara gënul fort que cette constitution boo xam ne peuple sénégalais yàggul noonu au mois de mars la ko voté hmm. nga bëgg ñëw teg ko leneen si kawam exemple bu simple tey mun naa toog Kouthia am lu mu def ma ne ko offense à l'image du au chef de l'État parce que image bi mu jox la ma tëj ko wala ma sonal ko il ne faut pas être un politicien les guignols c'est ainsi de suite defe naa dafa am benn certes loolu wax naa ko keroog fii dafa am benn question de maturité et de majorité politique boo xamante ni tollooguñu foofu mm-hmm. non non ñu foofu il y a une grande différence entre cet homme politique et le manteau politique qu'il porte oui. parce que manteau bi da da nga koy dafay maanaam c'est un costume taillé sur mesure et les hommes politiques si ñu si bëri bëri <coughs> bëri bëri à des les plus élevés boo leen déglu avant ñuy dugg ne fu ñu ne tey boo leen déglu mm-hmm. boo ko indee tey ñu nekk fii affaire ak responsabilité da ngay ne ce sont pas les mêmes Papis waaw c'est que déjà il faut ñu comprendre que ne article 80 bi boo xoolaatee dafa mel ni moom mooy article SAR bi pour tous les politiques mooy SAR bi tout le monde en parle mm. Euh, opposition comme pouvoir les gens en parlent dañu bëgg di wax ci article quatre-vingt bi hmm. mais man damay xaw a delluwaat tuuti si ginnaaw comme am nañ chance am un spécialiste du droit wax si sama compréhension bu ndaw c'est-à-dire euh, une loi a priori elle n'est pas faite pour pour gagner wala cibler c'est dans un esprit. Mmh. une loi déjà que ça soit l'article 80 wala benn article. et dafay am toujours une cohérence avec l'aspect moral mmh. soubassement moralité boobu pour rendre justice équité et tout c'est ça l'esprit d'une d'une loi oui. c'est pas la loi elle-même qui est mauvaise c'est l'application de la loi qui peut mmh. être mauvaise ou, ou, bonne dama bokk si ñi gëm ne euh, <clears throat> ñun dans la logique d'une république le premier citoyen en termes de responsabilité c'est le président de la république hmm. donc c'est impersonnel en d'autres termes yow tey boo nekkoon tey njiitu réew mi tu pourrais disposer de parce que yaay président bu Sénégal. constitution bu moo ko tënkee noonu. Mm-hmm. pour commencer si wàllu euh, responsabilité institutionnelle boobu kilifa la dañ ko war a jox respect. Mm. pas ma tudd je parle de tous les. Mm. potentiels président du Sénégal. dañ ko war a jox respect. Euh, liberté d'expression euh, c'est là où ça devient un fourre-tout. Mm. boo yaakaar ni tu es dans une logique de liberté d'expression nga wax lu neex là y problème. mais bu fekkee aussi. dans l'application de cet article 80 bu fekkee ne bu Charles sëqatee neexu la nga tëj ko la y a problème donc pour man dañu war a dem au juste milieu hmm. la loi elle-même elle n'est pas mauvaise elle peut réparer des choses parce gis nañ fi parfois mu am ay dérives comme aussi gis nañ fi ñoo xamante ni pour un moins que rien peut-être sur la base de cet article ñu tëj leen donc am na déséquilibre pour man les gens doivent revenir ah à la pertinence de l'application de l'article en en lui-même mm. mais pas benn yoon am na tam leen li ma bëggoon wax par rapport ak li <coughs> maître wax léegi mm. ci wàllu les grandes démocraties man damay <coughs> seetlu temps yëpp dama am benn euh, seetlu bu ndaw bu ma def par exemple ci euh, ce qui se passe dans les grandes démocraties justement et les grands développements dont la Grande-Bretagne aujourd'hui mm. xam nga euh, s'inscrire dans la dynamique de la démocratie loolu moom mooy li war ñëpp c'est le modèle jusqu'à présent mais dafa am lu ñuy fàtte te man dama ko xool ci tubaab yi je prends l'exemple de la Grande-Bretagne quel que soit leur développement quelle que soit leur démocratie ils sont encore arc-boutés à des valeurs mhm. la royauté par exemple elle est elle est sacrée on n'y touche pas oui. ça n'entache la la démocratie la ñoom seen cosaan la mhm. cest li ma bëgg andi foofu mooy mhm. mun nga avancer ci sa démocratie mais en ayant des supports qui te sont propres mais gëmm euh, démocratiquement parlant nga gëmm pour tout ce qui est démocratie nga nga nga incorporer ko wala adapté ko boo demee ba si biir da ngay am problème tu sais pourquoi mhm. parce que tout est lié à la sociologie à la culture très bien il faut pas qu'on soit

c'est vrai mais je parle de la royauté. si si si dañuy ñëwaat pas conforme à la démocratie. de façon substantielle moi je parle de ça. de la quintessence de la démocratie. mais aussi le respect de cette démocratie en tenant compte des valeurs. spécifiques du pays. qui se trouve être un pays de démocratie et de développement. donc la Grande-Bretagne prof euh, mm-hmm. euh, naan ay article 80 ay offense au chef de l'État. c'est symptomatique de notre niveau et de notre rapport par rapport à la démocratie. Hmm. parce que ni ko maître xawee junj sànq boo demoon tey en Europe aux États-Unis nga fay wax ay waxu offense au chef de l'État dañ lay xoolal. donc le problème n'est même pas un problème xalifa de comportement démocratique. Hmm. mais li ma la waxoon mooy culture ak pensée démocratique déjà daf fee nekkut. waaye nag bu fekkee dañ ko lié. ak li ñu jàngat ci histoire contemporaine de l'Afrique mhm. man dafa nekk disposition boo xam ne dama ko ragal pourquoi offense au chef de l'État atteinte à la sûreté de l'État pourquoi mais moo jur Kambouaro mhm. bu Sékou moom moo jur Idi Amin Dada en Ouganda mhm. moom moo jur Bokassa en Centrafrique ça veut dire que tous les tyrans ils ont tué par centaines de milliers toutes les forces vives de leur pays au nom de l'offense au chef de l'État et au nom de la sûreté de l'État mhm. donc man dama jàpp ne article rétrograde la mhm. dans une démocratie qui fonctionne normalement mhm. nit ñi am approprié wu ko dans leur fait et dans leur geste de tous les jours muy ñi nga xam ne ñoo jiite mooy ñi nga xam ne ci ñoom lañ koy exercer en principe la notion d'offense au chef de l'État dañ ko war a def nettoyage daal di ko completement supprimer parce que boo ko seetloo fu ñu ko invoqué rek très souvent boo ko mm. seetloo bu fekkee dañ waxante dëgg rek mm. règlement de compte politique lay doon mm. dans nos continents waxuma Sénégal rek mais dans nos continents le plus souvent da am benn adversaire politique boo xam ne xamoo noo ko brisé mm-hmm. làmmiñam rëcc ko mu am la wax nga ne ko au chef de l'État ubbi buntu kaso ne ko ràpp donc man ci li ma gëm mooy fi ñu toll nii nii nii en tout cas ñun Sénégal parce que bul fàtte nag que le p moo jiitu les hommes politiques mm-hmm. le peuple il est ta préoccupation je crois qu'elle est pertinente mais c'est surtout en rapport avec ceux qui nous gouvernent plutôt que le peuple lui-même parce que gis nga peuple bi ni mu comporté woo bu élection jotee ça dire que xam nañ clairement li ñu bëgg et dañuy exprimer seen suffrage de manière très claire mais boo ko seetloo dafay mel dafay am benn décalage entre peuple boobu ak ñi nga xam ne ñoom ñoo koy jiite à tel point que finalement article boobu au lieu que mu nekk une disposition juridique fondamentale buy garantir l'effectivité de la liberté d'opinion l'effectivité de la liberté d'expression mais en tant que tel Khalifa c'est un article rétrograde mm -hmm. et un article qui me fait peur mm-hmm. à la lumière de l'instrumentalisation dont il a fait l'objet dans l'histoire contemporaine de l'Afrique li nga mujj solo waaye kenn dégg ah waaw waaw dama ne. li gën a tax daal ma ragal ko. Hmm. Eh, xaw ma ni ko faral di bu di bu di faral di waxee noonu. Uh-huh. maanaam fu ma ko déggee rek. Hmm. maa ngi ko doon déggee ca Imin Idi Amin Dada dictateur Ouganda ba. maa ngi ko doon déggee ci Bokassa ca Centrafrique. Hmm. maa ngi ko doon déggee ci Sékou Touré ak ay Kamp Bouaroum. ku ñu daan jàpp rek. daal di ne napp ci kaso bi wala ñu tëj la kenn dootu la gis ñu fagagal la. la ñuy utiliser mooy attente à la sûreté de l'État offense à la personne du chef d'État hmm. comme nag loolu la am histoire am man wax dëgg yàlla dama koo xaw a ragal moo tax ma jàpp ne article rétrograde bi buuba maanaam dafa xewi quoi lu ñu weesu la ah, euh, waaw mais man en fait man pour man ñu dañu ubbi dara loo xam ne xamuñu fan la yem parce que boo waxee ay euh, liberté d'expression wax démocratie tubaab yi nga xam ne ñoom ñooñu ko ñëw ci njëkk taxaw dañ ko ubbi ba pare bàyyi ko mu law te ñun dañu am culture. dañu mm. am mbaax dañu am nu ñuy demee nu su par exemple fii bu la nit <coughs> magee am na cër boo koy jox. ci suñu kër yi la commencé. tigi tigi te loolu pour man daf ñuy dab. Mm. même si si genre article yu mel nii parce que tout le temps dañuy dañuy utiliser argument juridique beeg affaire yi fàtte li nga xam ne moom la ñu doon ñun ñooy ay sénégalais et je pense que loolu war nañ ko mën a sant yàlla. je pense que ñu nekk dëkk bu ñàkk teggin peuple bu ñàkk teggin envers benn nit. Mm. loolu lu am solo je pense que il faut ñu tenir ko téye ko. ñu bañ ko ñu bañ ko supprimer ñu bañ non loolu xamul tax parce que kenn du ko bind si si si lépp li nga xam ne. lu juridique la. Mhm. donc aujourd'hui boo commencé ne démocratie commencé liberté d'expression mënatuloo ko téye mënatuloo ko limiter. Mhm. pour man li ñu li anglais bi naan action speak louder than words. mooy mhm. cest à jëf. moo gën a foor wax. tigi cest à que suñu président africain yi. à chaque fois que nit ñi jël mbedd yi di ko taal di ci xeex ci mbedd mais loolu moo gën a metti sax wax. Mhm. parce que ñoom ñoo poussé euh, peut-être les peuples à aller dans ce sens. Mhm. te loo bu boobaa xanaa kon ku génn si mbedd mi taal a ñu ne la da ngay offensé euh, au chef de l'État parce que suñu njir yi ñoom ñooy pousse nit ñi ba ñuy am yenn comportement yi. Mhm. dama lay jox un exemple par exemple semaine dernière am na benn manifestation bu fa amee mais dans la vie nor dans la dans normalement su nit di def dara soo ko ko teree mais dafay fippu. te loolu mooy indi yenn wax yi ak yenn jëfin parce que nit bi bu fekkee dafa bëgg a dox wala mu bëgg a wax xalaatam nga bàyyi ko mu wax ko librement saa nga réprimer ko saa nga kii ko peut-être dina am dal. Eh, ñi fi doon dox tere terew leen de. ñoo jaar feneen fi ñu leen tere ma rek dañu am dañu am aada ak cosaan. Mm. boo xam ne may nañu ñu am quand benn yar bu ñu am boo xoolee dëkk yi ñu wër Sénégal quand même war nañu sant yàlla parce nit ñi. ñu ngi wax plus que dëkk yu bare yoo xam ne ñu ñu wër nit ñi am nañu bokk plus de liberté yu ñuy wax mais loolu moom laa yoon fi nga ko commencé mm-hmm. après munoo ko fa yemale très bien aujourd'hui li nga xam ne moo am ci dëkku nasaraan yi bu dee ci mm. côté boobu la ñuy dem il faut que nit bi ñu définir exactement mm. jusque où yow nga mën a yem parce que am na yoo xam ne ñu ngi fiy tëj nit mm. di ko yóbbu ci kaso bi parce que dafa wax dara loo xam ne wax fa dëgg yàlla soo ubbee voie wu am na droit wax loolu sénégalais ga leneen moo la fi indi si si ñaareelu xaaj bi na si ñëw léegi mais bu dee am nga loo si bëgg a wax balaa ñu la fi teg comme spectateur euh, place Birima nga toog. waaw <laughs> jërëjëf. Euh, Khalifa am na loo xam si article quatre-vingt loo si xalaat. waaw euh, yaakaar naa ne ñu fi boo xam ne. non tant que citoyen. en tant que citoyen bon utilisation bi. Mm-hmm. mooy moo mooy poser problème. Mm-hmm. comme ni ñu ko waxee li ci ëpp yenn saa yi day doon loo xam ne dañ mm-hmm. koy ni ñu koy utiliser day doon <coughs> euh, répression extrême. très bien waaw ndax citoyen mën na wax xalaatam mais tamit na ko wax ak maandute. Hmm. bu ci waral a doon ànd koo xam ne da ci ànd ak dal. ak responsabilité dëkk bi dafa am loo xam ne. Hmm. Euh, culture la moo xam diine la moo xam aada la. Hmm. yooyu yëpp dafa doon loo xam ne dañ ko war a sóoraale. très bien euh, sànq tey yaa ngi kii am na loo si bëgg a yokk. balaa ñu interpellé waat maître. waaw parce que dañuy juum. xam nga tey aw ma sañ-sañ wax lu ma neex président de la république aw ma sañ boobu je suis bien éduqué bien éduqué cultivé ak c'est-à-dire aw ma san-san boobu léegi nañ xool suñuy homme politique yi ñu bëri l'opposition dira toujours non au pouvoir loo defee bu baax nu ne la baaxul mhm. formation de nos hommes politiques mhm. boo leen déggee bu baax a baax lépp lu pouvoir bi régime bi def ce n'est pas bon mhm. mais c'est pas possible nga ñëw beneen côté bi lépp lu opposition def ce n'est pas bon. Mm -hmm. mais attends c'est vrai il y a la quête du pouvoir la conquête du pouvoir mais cela n'enlève pas quand même ay ay ay points de convergence. on peut mhm. diverger. Mhm. mais on peut converger aussi. Mhm. kooku de benn da lay jox la leur sànq mooy suñu majorité politique. oui c'est-à-dire que tey on doit fondamentalement changer. il y a des valeurs yoo xam ne dañu ko war a convoquer si maanaam géewu politique ba. bés boo ko valeur ba fu fa nekkee. très bien yenn juum dootul am. léegi léegi est-ce que temps yi temps yi professeur temps yi xam nga temps yi dañu ne euh, les hommes politiques dañu dañuy verser plus benn camp bi comme beneen bi. vers un langage ordurier maanaam kaddu ñaaw dañ koy nemmeeku ci langue politique yi. est-ce que est-ce que est-ce que phénomène bu bees boobu dina jox chance. mais ñu supprimer wala ñu waxtaanaat ci. comment veux-tu par hmm. maanaam maa ngi si pouvoir xam nga tapis rouge daa neex xam nga lii tapis rouge la daa neex de bés ñëw rek bërëb ma daanu. puis tapis rouge Sénégal jóge naa tapis rouge waaw neex na. Mhm. neex na de oto bu ñuy ubbi chauffeur bi ne si kanam ñu jox ko si carte bés nga ñàkk ko. nga ñëw rek ñu transit bi dafa dafa dafa dem c'est-à-dire suñu politique moo salte mhm. maanaam référence yoo xamante ne moom lañ war a xeex taxawul ko. Mhm. moom lañ dul def. très bien ce qui fait que quatre-vingt. mun naa ko xeex tey tant que je suis dans l' opposition ay bu ma demee pouvoir ba moo xeex professeur am na la si professeur da nga bëggoon wax léegi non sur ce plan sur ce plan ma ñëw on a pas du ngeen waxee affaire kii wu yi mm-hmm. or des trucs mm-hmm. est vrai que loolu lu lu ñuy war a cible mm-hmm. wante euh, dafa am ay dispositions yoo xam ne parce que loi bi su amee lu mu lu mu lu mu teg rek teg na safaan bi maanaam wala lu koy saafaraal. Mm-hmm. soo jëlee exemple tooñ euh, njiitu réew. Mm-hmm. tooñ njiitu réew nañ ko France yow jël nga exemple Royaume-Uni mais Royaume-Uni. Mm-hmm. c'est encore une kii la encore buur moo fa nekk ba léegi. donc boobu c' est un pas à part euh, offense tooñ euh, bu dafa nekk euh, dañ koy diriger surtout ñi nga xam ne dañu am pouvoir sur les sur institutions yi Royaume-Uni exemple boobu nga jël euh, ku fa nekk ren d'Angleterre bi moom dañ ko fa teg noonu parce que survivance de la royauté la wante amul benn pouvoir premier ministre bi. Euh, maître maître maître nga baal ma dëgg dëgguma la léegi pour pour revenir pour yow pour tontu la. waaw si affaire kii ordurier yi. waaw France suñu bu ñu dindee euh, tooñ bi offense au chef de l'État. Mhm. dañu teg dañu ay dispositions yoo xam ne ñu ngi fi woon sax. Mhm. mooy la diffamation et l'injure. mooy injure bi mooy saaga. Mhm. diffamation mooy nga waxal nit koo xam ne. <coughs> loo xam ne du dëgg loo xam ne daf koy. Euh, laal si honneur am ak consideration am. Hmm. ah injure nag mooy nga jékki-jékki nit nga wax ko. Euh, nga nga waaw saaga ko wax ko invective wala hmm. kii bu lu lu lu salte daal. Hmm. ah te doo ko wekk si si fenn. kooku. c'est c'est c'est réprimé. très bien et et les et les, les le président la comme comme comme njiitu le président de la République en France. Mmh. et dans les autres pays yeneen pays yi nga xam ne dañu ko supprimer. mun nañu. sukkandiku su disposition injure ah comme fii Macky Sall mun na sukkandiku si yooyu pour réprimer ñi nga xam ne ni ngi koy saaga oui euh, sans recourir. Euh, affaire offense au chef de nga baal ma tudd parce que li Papis wax sànq dafa xaw a rejoindre surtout Bouba. mais ba ñu suul ko. en fait su ma su ma juumee si li ma comprendre ngeen wax ma. j'ai ñoom li ñu bëgg wax mooy la limite Sénégal li ñu baaxoo ak ni ñu cosaanoo à la limite on n'en a <coughs> même pas besoin. doon ñu ko sax soxla ndax am nañ fi ay jikko. am nañ fi orme yoo xamante ne nii à la limite sax pas forcément parce que non mais code langage non ah pas du tout oh, non mais déedéet déedéet eh, eh, eh, Charles Faye Charles Sénégal fii doo gis xale bu ne papaam wala yaayam nangam alors que mais yow eh bu wandur sa doom xalaatoo mu la papa tu mens ni ko ab di waxee doomam te dara du ko si fekk d'accord non mais c'est vrai mais en France permis loolu la ñuy wax est-ce que loolu ngeen di wax ou pas mais moo tax il faut pas ñu def ah, euh, l'un l'autre ah, waaw il faut pas ñu def benn mauvais procès ci suñu politiciens yi dire que aujourd'hui tey jii nii boo xoolee jag boo defee diagnostic suñu politiciens wax fa dëgg yàlla aussi il faut que affaire bi des war a tar hmm. c'est dafa non non dire que on peut pas faire le procès de nos politiciens pour dire que ils sont dañoo dañ ne dañuy saaga dañu kii saagawuñu ñu yi aussi quoi qu'on puisse dire <laughs> c'est très rare non non attends kàddu yi rafetul mais déggoo ma ne la dafa am yenn moment yoo xam ne il que gars ñu agressif c'est normal dégg nañ ci lu ne mais pourquoi mais déggumal la c'est-à-dire que aujourd'hui dama lay jox benn exemple 2012 mm. on a eu un mouvement qui s'appelait quoi Y'en a marre mais si suñu si suñu déggin rek c'est hyper agressif c'est-à-dire que ku la ne Y'en a marre pare na pour xeexan ah. mm. c'est-à-dire aujourd'hui dafa am benn moment boo xam ne les gens doivent être un peu plus par contre buñ leen limiter trop ba nga xam ne li ngay wax da nga koy xoolaat ak tout le temps sa même ça tue un peu. Euh, waaw dama bëgg repréciser rek. par rapport ak euh, euh, li maître euh, rajouté quoi ci li ma waxoon. Mm. waaw Grande-Bretagne. c' est juste c' est juste vrai je comprends ma wax naa ko da ma déggul. Mm. c' est juste une valeur symbolique. socle waaw mais. Mm. bu ma bu ma demee en profondeur le premier ministre bu ñëwee bu ñu ko nommé mu war a exécuter la politique day ñëw. au au palais. donc donc je veux dire que c'est vrai que amul pouvoir politique. mais am na pouvoir symbolique boo xamante ne c'est traditionnel. Hmm. man dama bëgg dépasser article quatre-vingt bi di wax ne nous les Africains. ñun nga xamante ne on a pris la démocratie en marche dañ ko dañuy hmm. il faut pas que ñu concevoir suñu démocratie. textuellement textuellement à ce que les gens font parce que à côté ñoom am na loo xamante ni mhm. dañ koo téye mhm. ko ci démocratie dañ koo téye di ànd ak moom mais droit de réserve boobu nga xam ne bu jëlee exemple royaume uni mhm. sa di que bés ah bu nga xam ne reine d'Angleterre dugg na ci mbirum politique wala mu jël parti pris voile boobu gars koy tegg ah. la la seule façon bi nga euh, raison pourquoi gars yi ñu daal si parce que dafa am benn rôle bu mu joué boo xam ne hmm. si deux choses complètement différentes quoi mais bu bu woon loolu hmm. eh, eh, boy yi gën a ndaw dañ koy attaqué ah. liberté d'expression hmm. bi nga wax léegi mooy da nga ay dérives au niveau du langage est-ce ñu war ko fi dindi wala ñu war ko bindaat est-ce dina faciliter ñu war ko fi dindi ñu war a dindi article ñu war wala ko fii bi warul nekk di facilité wala muy difficulté article quatre-vingt am dans tous les cas dans son esprit damay yaakaar ne démocratie day dox ba yegg foo xam ne mhm. lu tax ñu dindi ko mhm. parce que da ngay yegg foo xam ne il y a des questions qui sont réglées <laughs> par d'autres dispositions ah. que je disais dafa ubbeeku jeex na il y a des questions parce que déglu ma balaa bàyyi xam Charles. waaw y a du naïf. non àggali rek waaw bon tu <laughs> waaye boo demee ci ci charte. après tu démontres après tu réew mi comme ni mu la ko waxee sànq junj na ko. am na ay dispositions yoo xam ne contraignantes jarul ngay yegg ci offense au chef de l'État parce que y a le délit d'injure de diffamation pourquoi spécialement nga bëgg ut benn article boo xam ne offense au chef de l'État la alors que bu fekkee damaa wax rek saaga du chef d'État du citoyen y a des dispositions dans notre constitution yoo xam ne dañ koy réprimer moo tax ma ne la en tant que tel l'article quatre-vingt boo ko seetloo ba seetlu ko jàngat histoire am daf lay won fañ ñu toll ci démocratie. très bien daf lay won ba léegi nii y a des questions élémentaires. yoo xam ne réglé guñu ko mon cher. très bien maintenant montre-nous en quoi nous sommes naïfs. <laughs> non non c'est pas ça non non. Ah, non non la naïveté. non yaa ko wax montre-nous en quoi par exemple pour en revenir à l'Angleterre. c'est aussi simple Royaume-Uni da ngay yëg sa kaw. non la naïveté concerne ça veut dire waaw yëg sa kaw siis nga wax gars yi lu ngay wax ça ça a été le symbole de la démocratie. Euh, euh, comment dire oui mais la naïveté. attention attention mais mooy la parfois léegi teewul ku yeewu. non non mais ça n'a rien

cest dire nag da ngeen comprendre ñu bëri ñu doon du fi doon défendre di maanaam di xeex article 80 man dama bëgg détracteur wala qui milite en faveur waaw d'accord donc doon ñu ñu doon xeex article 80 ñu bëri fii mais opposition la ne oui sam d'accord wax ma kan moo si dugal pouvoir kan moo dugal pouvoir ba jot ba jot pouvoir ba nga ne article 4 non non déglu laisse-moi finir non je te laisse finir je veux aujourd'hui dañu am benn disposition boo xamante ne ñan ñoo ko mën a changer mooy ñoo xamante ne dañ jamono bu mu fay toll affaire bi dal seen xaw ñoom ñuy xeex contre loolu quand ils sont arrivés au pouvoir qu'est-ce qu'ils ont fait est-ce qu'ils l'ont changé mais boo ñëwee pouvoir loolu laa la wax on a am benn réalité maître yow yaa nekkoon <laughs> avocat avocat maître Abdoulaye Wade maître Abdoulaye Wade si boppam ay ay <laughs> jamono mi nekk si opposition bi daf ne woon bés bu faloo daf koy dindi sànni géej <laughs> la preuve bi mu faloo dindi ko sur ce plan précis oui <laughs> man je pense que yéen ñëpp parce que les sénégalais ñu sénégalais yi fi nekk ñëpp mm. euh, fekk nañu magistère u Abdoulaye Wade pan si douze années yi nga xam ne Abdoulaye Wade nekkoon na au pouvoir amul benn euh, journaliste wala benn nit boo xam ne poursuivre nañ ko ba tëj ko pour délit d'offense au chef alors que moom mais loolu jëlee ko fii. alors euh, <laughs> attendez attendez euh, hmm. j'ai pas terminé. Hmm. dégg na lu nekk. non des paroles euh, on l'a diabolisé nañ ko calomnié nañ ko wax nañ ko lu nekk façon saaga bu nekk wax nañ ko. Madiambal a été Madiambal Diagne wante amul benn yoon boo xam ne président de la République. Hmm. sur douze années. soo ko comparé avec ak euh, ñeenti at yi ñi nga xam ne ni ñu koy dund. ah président Abdoulaye Wade. nga xam ne dégg lu nekk poursuivre na nit ba tëj ko pour offense au chef de l'État alors que là on a vu euh, le cas de Niass de, de, de du gars de Walfadjri où, où on l'a poursuivi. mais c'était pas le sens de la question. mooy dama ne mais Abdoulaye Wade bi mu fi nekkee dañu woon bu bu faloo da koy sànni géej. lan moo waral yow mi nekkoon si wetam en tant que juriste. bi mu faloo mu bàyyiwaat ko fi. non non non non euh, Abdoulaye Wade. oui. il il il euh, bu mu faloo je n'ai jamais entendu dire que dina ko sànni géej. moo ko waxoon il faut pas aussi. Si, il avait dit euh, il avait dit <laughs> il avait dit maître Sall l'a confirmé cette semaine waxoon na ko Abdoulaye Wade waxoon na ko. Euh, toujours est-il que. su fekkee dañu war a def euh, euh, com comme que suñu comparer régime u war Wade. magistère justement comparé wu ma. waaw fii xam nga jàkkaarloo bi. waaw xooluñu ay nit ay institution la ñuy wax. institution bi la xam institution bi. waaw en ce on ne parle pas de euh, on on est sous le magistère de Macky Sall. waaw mais xam nga donc on doit on de ce qui se passe. la meilleure manière nga dévoyer question bi. est-ce que mooy nga nekk le président Macky oui. Euh, la Moi réforme du non, code c'est pour rejoindre li Charles waxoon léegi. ku nekk la ku mu dal sa kaw nga ne da nga koy dindi. boo faloo doo ko dindi Ablaye Wade c'est passé c'est le passé. donc maintenant c'est pourquoi parler non mais maître je suis désolé. vous vous ah, non maître angle d'attaque vous n'êtes pas vous n'êtes pas là-bas maître s'il vous plaît sénégalais ñu ngi lay seetaan ñu ngi lay déglu lu ma wax dafa leer dama ne. les hommes politiques quand ils sont bu nekkee dans le non waaw s'il te plaît permets-moi de continuer bu nekkee dans l'opposition article 80 ñëpp a koy xeex surtout déglu leen rajo mën nañ dem RFM ñëw TFM ñëpp am nañ image am nañ son ok ils sont au pouvoir qu'est-ce qu'ils font est-ce que article 80 bi yóbbu nañ ko fale hmm. defuñu ko au nom de quoi parce que boo fa ñëwee beneen intérêt nga fay gis maintenant ayons l'honnêteté de dire que entre le hmm. pouvoir et dans ailleurs bon hors du tapis rouge. mais xam nga il mais je vous comprends mais pourquoi maa ngi doon xam que yow euh, focaliser wu. sous magistère Abdoulaye Wade. non non non parce que en fait man même pas cité non non non parce que vous euh, m'avez interpellé man maa nekkoon avocat am. Mm. Mm. waxoon daf koy sànni yàlla géej. Mm. kooku mosuma ko dégg fenn. mais lu ma la mën a wax. et que y a l'unanimité pendant douze ans kenn pour délit de fonction de l'État. pour délit il n'a jamais <laughs> a eu des a eu mais euh, on a même marché pour Madiambal. voilà mais il n'a a jamais a enfermé. Mm. sur ce plan je suis formel. Mm. alors mm. que. Euh, euh, bàyyi professeur am na lu interpellation. waaw li may bëgg question bi ça porte sur l'article quatre-vingt. c'est vrai que Charles li c'est pertinent. mooy le comportement des hommes politiques qui changent selon le rapport au pouvoir lii def valeur u article bi ak mu ñàkk am valeur dépendrul ci homme politique bi en tant que tel nekk ci opposition wala mu nekk ci pouvoir da ngay xool waaw dama ne li am solo li am solo mooy l'article en tant que tel la mu ëmb je suis mm-hmm. article bi la mu ëmb boo ko seetloo bu ñu naxantewul mooy fu ñu ko jëfee dañ koy jëfee comme ni ko boo waxee pour protéger quelqu'un ennemi politique nga briser ko sous le couvert de donc nañ def la différence entre l'article en soi sa signification sa valeur juridique et le comportement l'utilisation que tel ou tel homme peut en avoir mais l'article 80 en tant que disposition juridique est un article grave mais ah, parce que mooy lii kii rek lu ne lu ne olof wax na ko hmm. di nga ko bëgg akara da ngay ñeme kaani cest à moom laay wax aujourd'hui hmm. dañu ubbi dara loo xam ne normalement soo ko xasee bu ubbi day law ñu bëgg ko arrêté ça veut dire que bu ñu bëggee bu ñu bëggee démocratie ak liberté d' euh, expression am mënutuñu mënoo jékki-jékki benn moment nga ne nit ki fii nga mën a yem je pense que fi ñu fi ñu yemloo suñu opposants yi war nañu dépasser foofu parce que hey si démocratie yi gën a mag si monde bi da nga gis benn Donald Trump bu yeewu ne euh, président Obama juddoo woo États-Unis doo doo américain cest à que loolu diffamation fu mu ko gën a rëy. koo xam ne on a dit eh, excuse-moi mais à ah, casse-toi pour on <laughs> Sarkozy. Sarkozy. Voilà, non c'est l'a dit non attention c'est Sarko qui a dit casse-toi pauvre con. c'est lui qui a dit en français moom laay wax nii. Sarkozy moo wax en y pancarte non bon vous mélangez les. non non Sarkozy moo saaga benn français li mu la xëy. pendant les élections c'est Sarko a euh, euh, pendant la campagne il est allé à Laval à Mayenne. mu manifestant exhibé benn pancarte. Mm. où c'est écrit noir sur blanc casse-toi pauvre Euh, euh, et Sarkozy l'a, l'a poursuivi et le tribunal a voulu le condamner à, à 1000 euros d'amende. Très bien. Finalement, nous condamnons à 30 euros d'amende. Oui, maître. Mélenchon mm. a fait appel euh, de ses décisions au niveau de la oui. Cour, cour euh, oui. euh, européenne des droits de l'homme. Mm. Et la Cour européenne a désavoué la France. Juste, maître, Donc, pour juste, pour recentrer, que, <laughs> Voilà, là-bas, on insulte les, les, les chefs d'État. Maître. mais on les sanctionne mais, pas. Mais, mais, mais, juste pour recentrer, c'est bel et bien Sarkozy qui avait dit casse pauvre con en français. Xëy na après dañ jël pancarte bi delloo ko phrase bi sans doute mais la paternité de cette phrase c'est Sarkozy mais c'est Sarkozy léegi leneen li leneen liñ bëgg leneen liñ Papis dafa soulever lu am importance yéen ngeen occulté ko. mooy relativité liberté d' expression parce que loolu mooy problème bi en hmm. réalité. la relativité dafa am hmm. euh, article quatre hmm. au chef de l' état et mu am à côté liberté d' expression. ñoom ñaar ñu mbëkkante mënuñu déggoo. léegi nag relativité may ma relativité bi Papis dégagé c'est lié à la tradition c'est lié à nos cultures c'est lié ak suñu aada ak suñu cosaan léegi liberté d'expression nan la mën a jubóog pour ñu déggoo. Mhm. article quatre vingt. mais article quatre vingt. en tenant compte de li Papis offense au chef de l' état bi ngay wax loolu. waaw mais si liberté d' expression la bokk. d'offenser le chef de l' état. mais offense au chef de l' état. waaw ça fait partie de la dafa bokk si liberté d' expression. nit ku hmm. ne yaa ngi tooñ. non hmm. euh, c' que vous ne. Hmm. vous ne comprenez pas. Euh, offense su fekkee soo saaga. kooku c' est le droit d' son opinion. oui parce que offense c'est pas forcément nga saaga. offense bi mun na nekk par exemple nga utiliser ngay woy ngay woy comme il faisait Talla di woy di pendant le euh, kii camp Ablaye di ko. ça bon mais Ablaye Wade ne l'a pas poursuivi pour autant. Mm-hmm. El Hadj Amadou Sall. Mm-hmm. lors de la camp euh, lors des législatives su fekkee génnuñu Karim yore seen euh, euh, seen cumuwaar ak seen kuddu di dóor. loolu appel à l'insurrection la. kooku du saaga jël ay cumuwaar ak ay kuddu mais appel à l'insurrection eh, la di tëgg. c'est pas appelé à l'insurrection ay cumuwaar. waxul waxul waxul ngeen génn ak ay paaka mm. waxul ngeen génn ak ay ay ay cumuwaa ah, mais mm. kooku du kooku c'est c'est ironique mm, voilà ak seen casserole di di tëgg mais on l'a poursuivi on l'a incarcéré pendant huit mois te tëj nañ ko pour offense Samuel Sarr euh, tëj nañ ko Oumar Sarr tëj nañ ko maître tontoo ko ma de mais ba tey tontoo ko ma euh, euh, kii Niass waaw tëj nañ ko mais non dañ ko bëggoon tëj mais maître ba tey tontoo ko ma Mahama Diouf n'a pas obéi. mais mais tontu goo ma. waaw allez-y. man li ma lay laaj mooy. liberté d'expression donc li ma wax mooy offense bokk na si liberté d'expression. non wax ma loolu. si dama ne. waaw offense. Euh, article c'est antinomique à la liberté voilà dafa taxaw. waaw liberté d'expression taxaw. waaw léegi Papy soulevé na léegi ne. ñun relativité bi par rapport ak ñun suñu cosaan ak suñu tradition li nit mën a wax France mënu kaa wax Sénégal ma ne la nan lañ leen mën a jubaatlee bu dee bëgg ñu kaa dindi mais qu'est-ce que c'est que mais bàyyi ko mu wax non c'est-à-dire que moom lu mu wax comme lu buubu mu wax c'est vrai wax na euh, on a am nañu quand même suñuy suñuy aada waaw am nañu suñuy euh, euh, suñu mbaax ak seen suñuy xalaat wante nekkuñu si stade boobu parce que yu ngeen di wax noonu c'est dans la vie sociale fu ñu nekk nii fu ñu placé wu c'est sur le plan de la politique absolument donc c'est c'est un autre stade d'accord naak yéen sa se doom warula wax ci moom ah kooku question d'éducation la. France ça passe mais ouais, si c'est sur le plan plan, la. su fekkee dañu bëgg a museler opposition. Hmm. bëgg a museler journaliste. dañuy brandir c'est pour tout pour tëj pour écarter l'opposition pour les pour pour pour, euh, pour le. waaw waaye euh, <laughs> jël mais léegi fu mu yem. waaw mais mais mais mais Khalifa moom moom laa lay wax ni c'est-à-dire que aujourd'hui mënuloo mun pour man bu ñu defee diagnostic gu Sénégal. Hmm. ak homme politique yi position yi ñu jël ah kenn waru fi te kenn. lii xew ci te moom boo ubbee <coughs> liberté d'expression ak démocratie gars yi dañuy wax seen xalaat mhm. maintenant je pense que si réew Afrique yi rek la ñuy jël président de la République mu am saabu boobu di ko tagee nu mu neexee sant nañ yàlla par rapport ak yeneen pays africains mais je pense que on a du chemin à suñu homme politique yi il faut que ñu bàyyi leen ñu gën a dina dëgër dina kii mais je pense que nos présidents sont trop protégés par rapport à cette fameuse loi bëgg ñu dindi ko yow mais ko war dindi wala pour ñëwaat euh, est-ce que dañ ko war dindi wala dañ ko bindaat parce que am na fu mu baax am na fu mu juste mesure bi parce que am na fu mu bonee hmm. moo tax sànq may en introduction application bi mooy problème bi comment on l'applique c'est ça le maintenant puisqu'on parle de liberté d'expression moom mooy centralité débat bi. waaw waaw mais est-ce que xam nga fii au Sénégal toll nañu niveau boo xamante ne mais la liberté d'expression est une réalité. fii au Sénégal. on ne peut pas revenir sur ça. Hmm. et je ne vois pas un président sénégalais qui pourrait remettre en question cette avancée c'est un acquis ban jour ngay toog. xool dans tous les supports médiatiques doo gis ñu critiquer le président wala le régime mais hmm. ça c'est un acquis on est dañu dépasser foofu maintenant mais fu mu war a yem. mais maintenant je veux dire quoi qu'on puisse faire même au-delà même de l'aspect juridique juridique on parle de justice écoute mais gis nga dañu nekk dans un monde boo xamante ne. Hmm. lépp looy def te base woo ko ci sa culture mais tu te parce que à un moment donné ngay réer sa bopp. da nga war a am tes fondamentaux nga tey si. Hmm. sur cette base nga avancé aussi bien en démocratie en économie en truc. Mm. ce qui est valable en France ce ne sera jamais valable bu ñu jàngee ba wër université adduna yëpp diplôme yëpp. Mhm. ça ne sera jamais. Mhm. la même chose parce que les exemples sont là bu ñu ci duggee day gën a de débat mhm. mais maintenant c' est des entités c' est vrai mais dëkk bu nekk dangay euh, am sa banque sa euh, euh, son ton. sa kii quoi nu ñu koy waxee si. waaw sa banqaas boo xam ne ça repose sur ta société. tes cultures tes convictions loolu la ñuy avancé. il faut pas qu'on soit aveuglé par euh, par cette modalité démocratique mais Sabrou Sabrou Papis je suis d'accord avec toi mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. système muy démocrate système politique bu mu doon yaa ngi koy tabax rek mais ci wéeru ca cosaan ak sa mais c'est obligatoire mais ñun lii suñu problème te ma d'accord ci ak yow mooy boo demee ci wàllu li ñuy àtte xam nga barki démb mos nañ fi jaar ma woon la ne telle et telle disposition boo demee ci constitution France histoire wala benn événement précis bu peuple français traversé moo tax ñu indi loi boobu donc loi dafa war a nekk en rapport avec la culture et le vécu d'un peuple waaye il y a am na loo xam ne réew moo mun ti dem mooy la ñuy woowee les universaux maanaam ñi nga xam ne ñëpp ñoo ko bokk en matière de démocratie li ñëpp bokk nag en matière de démocratie mooy liberté d'opinion liberté d'expression mm. forme yoo xëy na mën na varier d'une culture à une autre mais dans le principe liberté d'opinion liberté d'expression article 80 ennemi liberté d'expression la ennemi liberté d'opinion dans le contexte du Sénégal et de nos pays africains lañ ca seetlu xam nga dañ dafay tax duñ saaga kii ñu nangam nangam kii ñu yiir ko jox ko ak xam ak yelleefam mhm. waaye ñun lañ ca seetlu yow ma ci Sénégal rek damaa wër ci biir Afrique mooy fu ñu jàppee nit ne rapp ci kaso wala ñu rendi ko prétexte bañ mos a brandir mooy offense au chef oui. de l'État atteinte à la sûreté de l'État à tel point que moi j'ai dit disposition rétrograde oui. ce plan précis parce que c'est <laughs> yomb mu ne naan am nañu suñuy àq ak suñuy suñuy tradition réew mu nekk am tradition Charles l'a dit mm. d'une manière très pertinente mm-hmm. faut faut pas que ñu. Mm. ñu écarté wu si débat bi. parce que le fond du problème mooy article quatre-vingt bi nga xam ne ñi wax nañ ko. les téléspectateurs. su fekkee dañ ko war a jël pour di euh, feyonto mm. wala pour empêcher nit ci wax seen xalaat. waxuñu ni si seen xalaat. mais offense c'est pas tout seulement saaga. Mm. faut pas que ñu kii. c'est ça mun na nit ñëw génn ay yëf yu. yu wër peng yu taxaw. ñu wax ko pour éclairer opinion bi léegi nag wax yooyu. mun na mun nit mun na ko brandir. Mm. ne offense la parce que dañuy révéler ay yëf yoo xam ne. def intérêt réew mi la. léegi professeur su ñu jëlee exemple. Mm. y a des exemples. l'inspecteur des impôts. wax yooyu mu wax. Oumar Sarr wax yu mu wax. ak keneen ak ko seen kaw dëgg. attendez kenn tegu ko seen kaw. gisaguma ko de. Euh, si Omar Sarr oui. non Omar Sarr on l'a euh, on a on a exigé on a exhibé l'article ne diffusion de fausses nouvelles offense au chef de l'État. détenir pendant huit mois. Hmm. abstraction de son immunité de parlementaire. Hmm. pour lan parce que c'est un opposant politique. mais c'est le cas de Samuel Sarr. c'est le cas de El Hadj Amadou Sarr. non il faut qu'on avance Sarr il faut qu'on avance li ma bëgg a xam mooy est-ce que parce que ñetti ñett moo am ñett ñetti proposition moo am soit ñu dindi ko wala ñu bakk ci wala ñu bindaat ko. waaw déglu waaw boo si ban nga bëgg si boobu. oh c'est je sais pas moi comment veux-tu ah professeur dañ ko war a bàyyi. man kay li ma la wax lu leer la. dama la la nañ ko fomp dindi ko parce que biir constitution ba. la article quatre-vingt di am nga ay dispositions yoo xam ne. bu ma waxee bu mi lu ma ko warta wax. Mm. yoon may na ko mu daan ma te soxlawu ma article quatre-vingt. waaw mais ko supprimer parce dama gis le ministre. pourquoi pourquoi je pose la question. parce dama gis le l'ancien ministre Aliou Sow mu ne.

réew yi lenn rek moo ñu ci mës a génne Sénégal alternance yi fi am yëpp parce que le peuple s'est exprimé hmm. d'une façon ou d'une autre laisse-moi terminer d'une façon ou d'une autre taal nañu pëna saaga nañu dóorante nañu déedéet déggoo ma ne la maître mi ngi nii toog 2012 hmm. bu gars yi saagantewul woon hmm. Charles bàyyi ma eggali dóorante génn ci biti jaayante du am alternance dama ne article boobu ah, dañ ko war a dindi effacé ko pourquoi ñu war ko dindi effacé ko parce que tout simplement même buñ ko appliqué wul article bi dafay planer hmm. si liberté d'expression wu nit ñi parce que tu te dis tout le temps que si je dis ça je risque d'avoir ça hmm. bu dindiwul gis réew yi 2016 la ñu nekk démocratie buy avancé comme salaan la mooy affaire yooyu di law rek noonu hmm. il faut ñu pare pour loolu pare nag mooy encaisser. très bien c'est ça le problème. dindi ko bàyyi ko fi wala bindaat ko redéfinir ko. non sur sur ça damay rejoindre professeur. Hmm. Euh, bu ñu génnee ci considération politique yi. parce que boo xoolee euh, esprit bi wala bokk di tax ñu créé ko c'est pour renforcer le président pour mu mën a sàpp xëy na. Euh, ses opposants wala ñëpp ñu koy. wala euh, juste pour protéger mais mooy mooy li may waxee parfois y a des choses que je répète très souvent. Mm. mooy quand je parle de la réalité de la liberté d'expression au Sénégal. Mm. de la même façon on a une constitution qui règle juridiquement tous ces aspects. Mm. sous ce rapport oui. la mooy si sa gis-gis dindi ko ko fi wala bindaat mais il faut <laughs> vous savez <laughs> réew dafay dox xam nga sànq <laughs> cité euh, réew adduna bi dafay dundu comme ñu ngi doon dund y'a vingt ans mm. donc euh, ñun ñu ngi ñu ngi ñu ngi bëgg a avancer ñu ngi bëgg a dindi wala da nga koy da nga dindi da nga dindi donc nee naa leen am na am na ñaari am na ñaari mm. ñaari ñaari délit lu ñuy wax diffamation maanaam nga wax mm. la nit koo xam ne yoo xam ne amul. Mm. Euh, pour pour pour pour pour pour que gaañ ko si honneur am ak considération am wala nga saaga nit kooku nit comme ministre ministre yi ak président yi mun nañ si sukkandiku. léegi pour pour euh, euh, sanctionner. nit dernière question maître balaa ñu àgg ci beneen ci beneen kii bi ci beneen ponk bi déjà junj nañ ko fi sànq sànq Charles junj na ko mais bu ngeen bu ngeen fàttalikoo tuuti professeur. Mm. dans le prince. le prince de Machiavel. waaw dafay mm. faral di wax ne une loi une loi bu ñu ko créé. la première chose à voir mooy loi bi noo si mën a lore noo ko mën a de la façon la plus vicieuse. Hmm. est-ce que du loolu moo fi bàyyi article quatre-vingt finalement. di ngeen ma di ngeen ma effectivement ah? damay wax rek. ça veut dire quoi man ma commencé c'était le prince. Hmm. waaw je wax surtout waaw. loolu moo tax. Euh, hmm. cour européenne des droits de nee nañu d'accord pour euh, euh, pour pour ah, ñuy dugg rek te mu ne on est naïf loi dafa war a am wante loi bi aussi dafa war a euh, précise maanaam mm. article quatre-vingt soo gisee ñu bari euh, dañ ko supprimer mm. c'est parce que loi bi existe na mais loi bi amul benn imputation benn fait boo xam ne mën nga si la euh, leer na mm. maanaam li nga leen wax nii fii yëpp d'accord nañ si c'est pour museler l'opposition pour éliminer les les opposants ça veut dëkk foo gis ñu éliminer loi bi c'est parce que l'opinion publique du xaar élection mm. mooy la grande différence au Sénégal xam nga déglu ma bu baax bu fekkente ne yow ton rendez-vous démocratique mm-hmm. dafay dem si calendrier électoral ba mm-hmm. maanaam président ba élection ba élection ngay changé pare nga si sinon si biir loolu lu si des ça ne t'intéresse loolu moo fi xew mm-hmm. bu fekkente ne opinion politique citoyen bi boom la démocratie c'est au quotidien qu'il la vit l'article 80 n'existe plus parce que c'est société civile mhm. opinion publique ñooy daje en dehors des hommes politiques pour dindi ko mhm. professeur waaw li ma waxoon loolu moo xew article 80 moom Khalifa mhm. quelle que soit euh, subtilité juridico euh, philosophique yoo mën a <laughs> xam nga du article bu juddu par hasard article quatre judduwul par hasard mm. dafa ñëwoon pour régler des problèmes précis mm. comme dafa ñëwoon pour régler des problèmes précis mm. problème yooyu ñun soxlawuñu ko parce que dafay delloo ginnaaw démocratie article quatre-vingt na dem abal ñu voilà ba ba ba pare pour man ni ñuy utiliser article quatre mooy à demi mesure quoi amul demi mesure c'est-à-dire soit da koy téye wala nga bàyyi ko moom laa ne ombre boobu tant que ngi existé parce xam ne c'est-à-dire que am na il faut si démocratie bu ñuy aspirer ni que ñu bàyyi nit ñi ñu wax seen xalaat li li li maître wax sànq am na diffamation am na <coughs> wax nit loo xam ne du dëgg mu disposition mais mais mais mais président de la république yaakaar naa ni suñu ma suñu opposants yi am nañu assez de maturité ak ak xam naa ko sax. ak assez de yar ak teggit mais par contre euh. les limiter. ah ñuy seet wax Bouba Ndour wax. c'est très pertinent xam nga. substitut euh, article quatre-vingt bi. Mhm. dafa nekk benn disposition boo xam ne. Mhm. c'est très contraignant maanaam procureur bi su fekkee dafa def mhm. ay réquisitions. mais juge bi il a les mains liées. maanaam il est dafay obligé condamner nit ki nga xam ne moom lay traduire. pour pour ses opinions. Mm. pour ses opinions euh, pour euh, offense. Mm. alors que euh, offense bu mun a nekk simple mm. expression de de de d'opinion. article daal ci gàttal. Mm. xam nga lu ko fi indi. am passé buur. jël président en démocratie assimilé ko ak buur boo tax nga tegal ko benn manto boo xam ne ca jaww jëlee rek <laughs> dara du ko laal loolu moo fi bàyyi article 80 ma daal ci tënk pardon ci tënk dafay dugg rek si ba léegi affaire démocratie et tout man dama gëm Sénégal fii dañu nekk dans une vraie vraie démocratie. Mhm. parce que mhm. premier jalon bi mooy liberté d'expression boobu ñuy wax noonu. Mhm. dafa exister boo ñëwee léegi si euh, euh, les références démocratiques aux États-Unis ce qui se passe ñu ngi si. Euh, ñu ngi si dernier tour bi présidentiel bi. mais Sénégal. mais tous les jours écoute-moi tous les jours. waaw neex ngay wax dans mais tous les supports. que mu nekk diffamation ou offense on a ces, cette organisation euh, démocratique déjà fii Charles il fait son malin les gens l'acceptent mais mais li ma li ma man mm. li ma waxaat on a une démocratie ça mm. j'insiste sur ça leneen li mooy bu ñu aveuglé aussi bu ñu gëmm

on a une liberté d'expression faite loolu am na mais mënuñu ko mimer le président bu waxee discours am léegi dans trente minutes les gens font le débat on commande ah, bu décision génnee les gens sont sur les plateaux la presse les contributions les marches et tout on est dans une démocratie en termes d'expression maintenant les manquements et tout ça peut ah, arriver c'est ailleurs aussi non bu ah, déglu ma buuba bu weddee ni liberté d'expression am na si réew mi. mais yàlla c'est quoi la liberté d'expression chaque xam nga c'est ça la l'expression. Euh, euh, Papis man soir mu wax lu ko neex. man waxuma lu ma neex lu ma xalaat laay wax. c'est la même chose. déedéet déedéet lu ma xalaat laay wax. Hmm. comprendre la subtilité de ce que a wax en ma wax. Hmm. dama dama ne parce dama dag parce que Papis dafa ne <laughs> Sénégal on a benn démocratie bu ngande. bu toll nii am nañ démocratie waay waay waay ngir yàlla ak yonent leen ma egg. waaw waaw mais oui. ma ne ko amuñu démocratie bu toll nii. <laughs> pourquoi parce que mbir yu mel ni moo tax amaguñu démocratie bu mel ni gis nga. Euh, hmm. démocratie bi ñu am. Hmm. peuple sénégalais moo ko xëccu. il faut toujours ngeen di rappeler wu loolu. démocratie bi ñu am dëggantaan dañ ko xeex ah. dañ ko xeex ci 40 ans de pouvoir ah dañ ko xeex ci troisième mandat bu ñu naroon bañ ñu bañ ko. ñun ne ko xeex c'est pas les politiques donc aujourd'hui aujourd'hui dañu nekk ci yoon te article 80 bi mhm. yoon woowu ñu nekk du dul ralentir marche boobu defu ko très bien jërë ngeen jëf en tout cas mooy ce na ko sànq si njëlbeenam euh, njiitu réew njiitu réew mu nekk si oppo ku nekk si opposition bi ne su ma faloo dindi ko boo faloo ba ko fi te mettre su ma juumul euh, si réforme bi nekk en cours du code pénal ñu ko si xool ñu sax ndax dañ koy dinem ñu ko vous savez xalifa waaw man je pense que problème bi. Hmm. nekkul si ki fal faloo dina wax ne dinaa ko dindi wala suñu faloo duñ ko dindi. Hmm. problème bi mooy dañuy wax affaire offense ak liberté d'expression. Mm. liberté d'expression certes am na fii mais problème bi mooy sooy wax suñu demee bay wax affaire offense au chef de l'État dañuy wax si kujjee. politique bi Bouba Ndour a soulevé et c'est pertinent affaire marché bi mais les manifestations la liberté de de marcher. mais c'est benn droit boo xam ne c'est un droit fondamental non faut pas non plus maître xam na la faut pas xam nga faut pas non plus waaw nga baal ma rek non non non Bouba xam nga ma lay dagg maître non maître maître xam nga ma lay dagg maître autorisé la marche attendez attendez non non maître xam nga ma lay attendez attendez may leen ma maître c'est un droit maître yaa euh, ngi politique ah, maître sa micro fay na maître dès lors où on interdit des marques ngeen baal ma ngeen baal ma mais maître maître et ça euh, c'est un exemple récent waaw maître baal ma maître euh, excusez-moi maître nga baal ma rek dama bëgg leeral benn affaire Euh, xëy na buuba juumee na ko léegi. yow yaa ju eh, non non non non. déedéet ju moom kon ju wax ne match bi dañ koy autorisé dañ koy tere ju moom lan moo gën a graaw si ma wax la non boo ma nee nga ma ko yow bu ma juumee yow dama juum. dënk juum rek li ma wax je l'assume. lan nga wax dama ne la. Hmm. xam nga autoriser marche. dafa am. Hmm. ci sa ay termes. Mhm. ak autorisé bàyyi gars yi ñu marche fu a jaar jaar fa. c'est autre chose très bien donc li ma bëgg a leeral rek par rapport ak li boobu wax ak li maître wax mooy la marche bi passée la marche de l'opposition bi passée c'était une marche autorisée en revanche. par dañ d' accord si parcours bi moo tax. man ñu réprimer ko c' ça les faits. man taskatu xibaar la je dis les faits. donc faudrait que ñu toog fii naan la marche a été interdite loolu amul. donc kenn wax mais loolu fii. Euh, loolu la maître doon wax léegi. non non ne Bouba Ndour juumee na ko man la juumee mu ko. donc on non mais ça c' un exemple. pour dire que y' a pas de liberté d' expression. a d' autres

oui. qui donc, parle euh, au chef de l'État euh, donc, elle est précise donc yeggu joon foofu et ensuite et ensuite nga baal ma dit on emprisonne à tour de bras je ne pense pas que je vis dans un pays on emprisonne également à tour de bras euh, c'est vrai que il y a des choses à revoir il y a des choses à revoir mais vous ne pouvez pas dire dans ce pays on emprisonne à tour de bras c'est pas parce qu'on ah, emprisonne Oumar Sarr qu'on emprisonne à tour de bras merci merci de vous recevoir ce lay gërëm di sant euh, avocat euh, maître Abdoulaye Wade ñu ngi lay gërëm di la sant euh, di leen jox dig daje léegi nii rek ci beneen xaaju waxtaanu jàkkaarloo aljuma ji bi julu li suuf seetee leen gaawantu fatu mi ngi doon gaarañ ni bi jolool yu teddi ci melax yi yeneen yu mel ni lu doon riir ngir liberté di riir ngir jàmbaar yi doon xeexte bal tàkkul di riir ngir ñi doon gàddaay comité national bi nga xamante ni moom moo yore lépp lu jëm ci wàllu saytu anam yi nga xam ni noonu yi euh, la ñuy yore lu jëm ci industrie yi nga xamante ñoom ñooy jële si ñoom ñooy liggéey ci li jóge si biir suuf si moo xam or la moo xam fer la moo xam pétrole la moo xam gaz la ñu tuddee ko euh, ITIE muy euh, initiative pour la transparence des industries extractives bu Sénégal comité national bi génne nañu seen rapport rapport boobu nag ñaare li nga xamante ni moom moo ciy fës euh, mooy anam yi nga xamante ni li ci gën a fës noonu la Sénégal ak la ci réewum Sénégal état Sénégal di tirer comme comme bénéfice comme koppar waaye ginnaaw tungu ni taw ñu nataal li may def rek mooy dalal suñu gan nga xamante ni mu ngi ànd ak ñun sànq ba nëgën nii muy euh, suñu gan gi di Pape Alioune Badara pay mu expliquer ñu d'abord lan mooy euh, ITIE lan lay jariñ Sénégal ak euh, seen rapport bi lan moo ci ne ak lan la Sénégal yi war a mën a comprendre Paye salaamaaleykum. waaleykum salaam jërëjëf xalifa donc je pense que su ma la bàyyee nga expliquer ITIE sénégal yi si lay gën a leer. waaw incha allah <laughs> jërëjëf. jërëjëf maa ngi nuyuwaat euh, ñi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi di nuyu mbokk téléspectateurs yi. Mm-hmm. Euh, ITIE comme ni mu ko waxee mooy initiative pour la transparence dans les industries extractives. Mm-hmm. maanaam ab tënk la boo xam ne tënkuwaay boo xam ne euh, norme ITIE moom mooy saytu li nga xam ne mooy dëkk yu ci bokk nan la ñuy doxalee li nga xam ne mooy wàllum secteur extractif. li ñuy ŋànk ci biir suuf si. Mm-hmm. mu doon lu nga xam ne mooy phosphate wala wurus muy or. wala li nga xam ne moom mooy euh, euh, pétrole beeg gaz bi. Hmm. nga xam ne yàggul bañ ko euh, gisee suñu réew mi. Hmm. mu doon loo xam ne dañoo seetlu woon ne dëkk yi nga xam ne dañoo am ressources naturelles yu mel noonu. Hmm. daanuñ ci jëriñoo lu bari. ñi def kuréel googu tuddee ko duppee ko ITIE ñi toll foo xam ne léegi ñu ngi am lu toll ci juróom fukki dëkk. ak benn 51 états yoo xam ne pays yoo xam ne bokk nañ ci li nga xam ne mooy ITIE ñii Euh, jóge ci li nga xam ne moom mooy étape euh, candidature ba yegg ci étape conformité. Hmm. Euh, Sénégal nag moom 2013 le octobre 2013 lañ ko déclaré comme pays candidat. Hmm. gannaaw ba gouvernement bi. jotale li nga xam ne moom mooy secretariat international ITIE. Hmm. bu Oslo bu nekk Oslo Norvège mébétam bokk ci li nga xam ne mooy réew yoo xam ne dañuy daal di leeral. ni ñuy doxalin bi nga xam ne moom la ñuy def ci wàllum industrie extractive. Hmm. Euh, ñu nangul ko mu nekk pays candidat mu génne li nga xam ne mooy rapport am bu njëkk. Hmm. octobre 2015 mu nekkoon ci atum euh, atum 2013 la la lalu ci la lalu woon. Hmm. ñu xool saytu euh, li nga xam ne mooy payeur ji tukkee ci loolu koppar ji tukkee ci industrie extractive. ak na lañ ko jëfandikoo. li nga xam ne mooy altine gi muy le 17 octobre ñu génnee ñaareelu rapport ITIE Sénégal mu doon li nga xam ne moom mooy. Euh, euh, mu mu mu muy wékku ci at 2014 année 2014 muy rapport ITIE 2014 bi nga xam ne moom moo nekk nii. Hmm. Euh, mu doon rapport joo xam ne Sénégal sénégalais bu nekk léegi xam na ni contribution en mille 2014 ñi jëlee ko ci exploitation muy or bi wurus bi muy phosphate muy li nga xam ne moom mooy industrie gazière bi fi nekk. Hmm. ak li nga xam ne mooy exploration pétrole bi. mu ngi toll ci cent dix sept milliards. Hmm. cent dix sept milliards lañ jëlee ci li nga xam ne moom mooy euh, paiement société yooyu loolu la état déclaré euh, njëriñ bi nga xam ne moom la rapport gi mën a amal askan wi. Hmm. mooy benn danañ xam nguur ñaat la ci jëlee. Hmm. loolu benn lu am wàll bu am solo la ndax tolloon nañ foo xam ne. Euh, xëy na opacité la nit ñi doon wax maanaam lëndëm boo xam ne dafa wëroon li nga xam ne mooy wàllu exploitation mm. euh, industrie extractive ñaareel mbir mi mooy dañuy situation citoyen bi nga xam ne moom nekk na ci Kédougou mm-hmm. nekk na ci li nga xam ne mooy Thiès euh, ca Mboro wala li nga xam ne mooy Jogo mm-hmm. wala feneen ak feneen moom bu xoolee rapport gi mu xam élu local la moo xam citoyen simple la mën na doon koo xam ne dina ci gis li nga xam ne moom la euh, nguuru Sénégal am ñaareel mbir mi mu gis ne li nga xam ne moom mooy Euh, condition d'octroi licence yi mhm. nan lañ koy nan lañ koy joxe. Mhm. loolu yëpp détaillé nañ ko ci li nga xam ne moom mooy euh, rapport gi mhm. ñetteel gi tam mu gis société yi ñoom lan la ñu wax ne loolu lañ def ci gox ya muy euh, dépense sociale ndax waa pàcc bu am solo la am na partie programme boo xam ne sax ñu ngi koy tuddee programme social minier boo xam ne depuis lors ñu ngi koy dégg waaye rapport gi ci tënk moom mooy andi mbir yooyu di ko wan li nga xam ne moom mooy sénégalais yi très kon dafa mel ni yéen euh, seen liggéey sax ñëwagul léegi. si kanam tuuti tuuti rek ak mbirum petrole bi ñuy coow bu si kanamee tuuti rek werante du am ndax yéen a ngi toog kon mën nañu wax ni yéen yéen ay gendarme euh, lépp luy jóge si biir suuf si pour mu leer mu bañ am werante ak kii diw jël na si diw ak diw jël diw jël na si diw. maître ngi toog xam naa ne du ma doon gendarme waaye. <laughs> waaw waxin la rek <laughs> waxin la maanaam yéenay surveiller transparence xam nañ loolu. waaw comité national nag bu ñu ko xoolee danañ gis ne. Hmm. ñetti pàcc la sax hmm. ñetti pàcc ñoo doon ñoo ñoo ñoo euh, boole seen hmm. seen i seen i loxo. daal di koy euh, di doorandoo di xàccandoo di doorandoo muy li nga xam ne mooy nguur gi ak li nga xam ne moom mooy société civile. ak li nga xam ne moom mooy entreprise privée yi. kon espace de dialogue la boo xam ne. boole na ñetti pàcc yoo xam ne daanuñu am occasion di toog ñoom ñëpp. di waxtaan di saytu mbir mi waaw dañ daan am suspicion maanaam ku nekk da daan njottu ne moromam mm. xëy na mu ngi def euh, lenn ci ginnaaw loo xam ne moom yëgu ko ak ak wóolonte wuñu woon kon mm. wóolute boobu ci comité national lañ ko daal di koy amee mm. euh, ñi coalition publier ce que fait euh, forum civil li nga xam ne moom mooy eh, Amnesty International journalistes yi am nañ fa représentant aussi ordre national des experts comptables ONECA am nañ fa représentant kon boo xoolee daanaka admis euh, admis euh, lépp li nga xam ne mooy composante société sénégalaise mm. dañoo bokk ci biir comité national ITIE di liggéey di génnee li nga xam ne moom mooy seen rapport. comme li ñu naan ragal dañuy ñëw tibb suñu or ak suñuy yëpp yóbbu bitim réew te duñu si gis dara yooyu yëpp maanaam daal dina am léegi lu gën a leer. waaw depuis 2013 liggéey bi tàmbali na ah. ak premier rapport. Euh, bi ñu bi ñu bi ñu génnee. Mm-hmm. bi nga xam ne mu ngi waxoon ne contribution société yooyu mu ngi toll ci 46 milliards. Mm-hmm. léegi gis nañ ne 2014 ak. Euh, ubbite yenn projet yi contribution yéeg na ak aussi paiement li nga xam ne moom mooy ArcelorMittal muy toll ci 49 milliards loolu ba mu dollee ko ci mbir yi gis nañ ne 117 milliards. moom le paiement ci lañ am li nga xam ne moom mooy. Euh, ci mbir moom. <coughs> merci je pense que leer na trop c'est très c'est très clair. leer na mm. trop mm. waaw moom tey dañuy toog rek ne alhamdulilah rabbil alamin moom affaire yi ñëw na. c'est aussi simple. ah ñëw na waaw parce que. Mm. lu muy wax dafa am solo. xam nga 2002 la affaire bi commencé mooy dëkk yi bu ñu euh, action gouvernementale conjointe la dëkk yëpp kii toog xool Sénégal dugg si kooku mooy information de taille pour ñun ci 51 pays information boo xamante ne bu am maanaa la parce que xam nga lépp loo xamante ni si wàllu mine la nekk euh, secteur bu sensible nit ñi bëgg ñu si wax wante nag ñëpp moom la ñuy seet population bi moom lay seet Euh, maanaam société civile moom lay seet opinion bi moom lay xool mhm. te loolu affaire boobu daawuloon bëgg information mhm. wante nag dañuy wax aussi c'est pour protéger des intérêts mooy investisseurs yuy ñëw il faut que ñu protéger leen ak pouvoir public bi il faut que ñu protéger ko et protéger intérêt mhm. lan moo xew nag li pourquoi mu ne alhamdulilah rabbil alamin mooy bu muy ñëw ma xoolee lii cent 117 milliards si 117 milliards ma génne 46 milliards yoo xamante ne si ay rattrapage u ArcelorMittal 49 49 milliards hmm. ArcelorMittal ay rattrapage ñu wàcc ñu def ñu disséquer affaire bi paaj ko ñu xool ko secteur métier minier bi mooy premier contributeur à cent et quelques millions ah voilà à cent et quelques euh, cent neuf milliards defe naa ñu hmm. xool loolu bu baax mais si biir bu ñu defee affaire bi dinañ gis que pétrole ci suuf la ne gaz bi moom waxi noppi du dëgg mhm. lu si des si feneen la mooy maanaam affaire bi ñëw na bu fekkente ne daal moom nu ngay continuer nii dëgg bàyyi foofu hmm. mooy que sénégalais war nañu gis exactement mbir bi lu mu tëddee très bien ñu xam ko hmm. xam société yi ci moom euh, candidature bi déjà rek ñun dañ koy tàccu ah. Mm-hmm. di euh, féliciter suñu xarit Ismaïla Madior Fall danañ ci waxtaan ak moom liggéey bu rëy bi mu ci def. Mm-hmm. parce que lii bu ñu fàtte nii Sénégal moomu ko mais banqaasu réew yi ñoom ñoo mm-hmm. daje. te du réew mu nekk moom moo cee dugg. parce que ñoom dafa am ay critères bien précis yu ñuy laaj. pour nga mën a dugg ci biir ITIE yaakaar naa su ma su ma juumul hmm. te ci critères yooyu bokk na ci bi gën a jiitu mooy transparence hmm. mooy maanaam nga war a caytu contrat yi na koy joxe hmm. kan nga koy jox est-ce que jox nga ko ci anam yu wóor bénéfice yi nga xam ne moom la entreprise yi privée yi nekk la muy générer également nga teg ko def ko rapport boo xam ne ñëpp dinañ ko jot de ce point de vue là vraiment wax dëgg yàlla dañuy rafetlu je crois qu'on n'est pas encore lañ nekk waaw depuis depuis 2013. pays membre pays pays membre pays hmm. am pays membre yi dañoo am ñaari statut hmm. mooy dañuy nekk dañuy déclarer ñetti statut sax ñett étape la. dañuy déclarer seen candidature. Euh, après conseil d'administration bi accepté leen ñu ngi toll ci deuxième étape bi pays candidat ñu ngi pays hmm. bu ñu demee ba ci kanam dañuy saytu li nga xam ne moom mooy validateur day am benn validateur indépendant bu ñoo xool jéego yi Sénégal dox ci mbiru transparence est-ce que dëgg-dëgg noonu la ah waaw troisième état bi mooy doon validation. da di surveiller leen di surveiller au plan international. moo tax donc ma di ko di ko rafetlu mm. waaye encore une fois bu mu nekk rek. Euh, buñ ko wax dëgg yàlla parce que lii c'est tellement intéressant mm. te dafa am impact boo xam ne ci biir suñ dundin que buñ ko politiser mm. nañ ko def vraiment un instrument boo entre <coughs> de scientifique mu dimbale Sénégal mu def ay jéego dimbale ñu ba mbiri leer leer boo xam ne yenn xaaj ak seen i fitna yi nga xam ne lii jur na ko feneen vraiment bu mu ko jur donc dañ ci rafet njort leen féliciter waaw mais euh, c' est c' vrai que li si gaa yi wax soo déggoo li mu li mu wax en tout cas pour ce qui est de ëllëg. Mm. war nañu peut-être am yaakaar ni nañu def liggéey bi war. maintenant euh, man toujours ma vision des choses mooy euh, dafa ndax 2013 ba léegi. Mm. mais est-ce que ñoom seen liggéey dafay impacter ci décision yi nga xam ne jël nañ ko ba pare. en ce qui concerne lépp li nga xam ne gis nañ ko ci suufu Sénégal je m'explique par exemple lépp li nga xam ne koom-koom la bu ñu jëlee ci suuf si mm. est-ce qu'ils sont venus après que les contrats ñu signé ko wala dañu ñëw mm. dañu impliqué wu ci signature contrat quoi je le dis mm. mooy dañu nekk si dëkk yoo xam ne c'est au départ que nit ñi la ñu war a impliqué Sénégal en général mm-hmm. c'est pas pour bu ñu ba pare pour ñu dérouler loolu pour man c'est c'est beneen étape la il <coughs> y a des décisions tellement importantes yoo xam ne nit jël na ko ci autoroute bu jógee Dakar dem fenn boo xam ne dafay impacter si suñu ëllëg yi te c'est des décisions yi nga xam ne foofu pour man tout se joue ci moment boobu moo tax mu bëgg xam exactement ñoom seen implication mm. est-ce que egg na si am nañ pouvoir de décision par rapport à toutes ces négociations qu'on fait en amont mm. pay ah, boo xoolee euh, contrat yi. Mm-hmm. dëgg la jiitu na li nga xam ne moom mooy création commité national ITIE. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, saytu bi nga xam ne moom la yi def mooy ITIE day def recommandation. boo xoolee boo liiree première page rapport yi dañuy résumer déjà recommandation yi. ci fin ba ñuy détaillé waat recommandation yooyu ngir décideur bi mu mun cee sukkandiku. xool li jagul mu jagal ko maanaam wàllum contrat yi. toujours contrat yi mën nañ def ay avenant lu ñu tuddee ay avenant maanaam mën nañoo yeesalaat contrat bi ndax nañ ne lii nga xam ne moom lañ jëloon xëy na hmm. pour levier bi ñuy bàyyil ko li nga xam ne moom mooy entreprise bi hmm. gis nañ ne nguur gi mu ngi ciy loru euh, économie dëkk bi mu ngi ci loro hmm. ñi delluwaat ci mbir mi négocier waat loolu dafa bokk loo xam ne it ya day feeñal liggéey jooju benn exemple rek mooy Nigéria ñoom dañoo bañ defee seen premier rapport ITIE gisoon nañ ne amoon na ay manque à gagner pour état bu bari bari loo xam ne ay milliards de dollars dañ ko chiffré. Hmm. Euh, gannaaw loolu dañoo saytuwaat yenn hmm. contra yi. donc dafa doon loo xam ne sukkandikukaay la pour que décideur public bi muy état bi. Hmm. mu daal di cee doon euh, koo xam ne population bi aussi. mu doon ñoo xam ne dañuy euh, laaj li nga xam ne mooy seen àq. ci mbir bi pas satisfait. waaw man ah. dama bëggoon ah. parce que dama laajte question rek développé li ma li xam si pourquoi ma posé question bi moom que pour man déjà avant ñuy wax demain. ci li fi xew ba pare depuis beneen régime bi fi nekkoon ba régime bi est-ce que ñoom saytu nañu conditions yi nga xam ne Sénégal signé na ko ak ay ay borom alal wala ay sociétés yu nekk ci extérieur ci mbirum pétrole bi ci mbirum phosphate ci mbirum dara est-ce que saytu ngeen ba évaluer que ni ces contrats la aussi nekk na ci avantage Sénégal pour man bu genre genre agence yu mel nii mm. ñun loolu la ñuy xaar ci ñoom li xew avant parce que il faut pas aussi qu'on tombe si benn piège wu ëllëg. waaw loolu te loolu man j'aimerais bien savoir. est que yéen lan ngeen ci gis. xaar mu complété Papis. léegi boo xoolee euh, ITIE ci norme lay ci norme ITIE bi lay tënku. dafa am hmm. ay exigences yoo xam ne dañu koy laaj. <coughs> parce que weesu na leen c'est au niveau international. c'est ça dañuy laaj par exemple processus doctorat de licence. Hmm. ñu delluwaat ci xool. contrat bu nekk nan lañ ko nan lañ ko ci secteur bu nekk nan lañ ko joxe même les contrats passés comme ni mu ko waxee waaw année bi nga xam ne moom la ñuy saytu année mm-hmm. dañuy xool contrat yi ñu ci signé mm-hmm. nan lañ ko signé mm-hmm. même bu fekkee ñu ngi en 2016 loolu bokk na ci li nga xam ne moom mooy exigence ITIE euh, moom mbir mi muy wax mooy est-ce que évaluer impact contrat yi ñu signé woon avant loolu boo xoolee ay commission technique yu yoo xam ne day boole impo boolee maanaam ministère des finance mm. boole li nga xam ne mooy direction des mines et de la géologie genre yooyu mm. ñoom ñooy doon comité technique yoo xam ne mën nañoo réel value li nga xam ne mooy impact contrat yi ndax boo xoolee ministères yi mm. ñoom ñooy signé contrat yi ministère des mines euh, benn contrat minier yi ah, ministère de l'énergie contrat pétrolier yi ak gaz donc dafa doon loo xam ne comité national ITIE facilitateur la Mm. nekkul koo xam ne day ñëw nekk acteur nekk opérationnel. Mm. du du koo xam ne mën na changer contrat. mais mais est-ce que est-ce que li may waaj wax ni noonu la mais bu fekkente ne nii maanaam saytu bi ngeen war a saytu. rafetluwuñu ko ci seen naataango yi bitim réew ñu génn leen si wan leen ni seen liggéey leerul réewum Sénégal dara transparent wu fa noonu est-ce noonu lay demee. Euh, loolu du exactement noonu lay demee ndax Sénégal def nañ ay jéego yoo xam ne. Mm. jéego yu am solo la. loolu yaakaar naa ne ak rapport yu ñaari même bu fekkee ñaari at lañ fi def. Euh, doonul loo xam ne mën na arrivé état du Sénégal ndax boo xoolee engagement état euh, suspension ci ñetti mbir boo xoolee lañ ko tënk. Mhm. mooy euh, engagement état dañ koy saytu ndax est-ce que gouvernement mu ngi jàppale dëgg-dëgg lool est que li mu waxoon mu ngi ciy taxaw. Mhm. ñaar engagement société civile est-ce que ñu ngi leen di gàllankoor ci mbir mi ak li nga xam ne moom mooy secteur bi ci boppam ni muy doxee. gouvernance bi kon mbir yooyu pour ñu suspendre. dëkk dafa am loo xam ne dañuy xool sa progrès ndax yow def nga ay jéego yu am solo wala ay jéego yoo xam ne weesu na sax li nga xam ne moom nga waroon def très bien merci <coughs> euh, oui waaw man <laughs> man du ma ci euh, du ma ci euh, du ma ci sori trop mm-hmm. mais li ñuy waxagum nii dafa nekk prolongement première partie émission bi tu mm. sais pourquoi pourquoi mais Euh, ce soir tu es euh, euh, terminer <laughs> mais lii mooy conclusion li ñu doon wax sànq première partie sur la démocratie la liberté d'expression mm. yaakaar nga ne am na yeneen dëkk yoo xamante ne sañ ngaa taxawoo di wax ay rapport yi fàllu koom-koom ak yooyu le attends non laisse-moi terminer le lendemain renseignements généraux yi suba ngay jël da ngay dem ça ça c'est il faut il faut ah être heureux c'est le peuple. il mm. faut en être fier il faut que ñu nangu. Mm. que mm, quelles que soient nos nos colorations que nous sommes dans une démocratie dans ce Sénégal. benn euh, pour revenir à ce que le notre ami invité a dit li si am importance pour man xam nga dafa wax ne y a trois segments. l'État les grandes entreprises et la société civile. foofu mooy affaire bi. en les attendant ci ndey mbili ji mooy pétrole beeg gaz bi ñuy jëm on les attend avec euh, vraiment impatience. Mm -hmm. mais xam boo waxee une grande entreprise elle a ses intérêts ou elles ont leurs intérêts, mm-hmm. réalité économique et tou ouais. elles peuvent ne pas converger avec l'intérêt du peuple, c'est mm-hmm. possible. Mm-hmm. L'État, dans ses obligations et ses contraintes de trésorerie, mun na vouloir être tenté à des ponctions ponctuelles sur des cas précis. Mais là où on doit attendre beaucoup la société civile foofu nag la amee importance man waxuma société civile mooy ni nga koy concevoir nii quoi euh, da ngay ba si sa xalaatu bopp nga ne société civile trois jeunes dans un quartier mun na def une action hein, qui confère à l'action elle-même mm. son statut de société civile c'est-à-dire mm. travailler pour l'intérêt d'une communauté de tout le monde Très bien. donc suñu société civile si mm. cas bi on les attend vivement Très bien. parce que ñoom ñoo war a mën a nekk les arbitres oui. et les vrais gendarmes Oui. entre l'État et bien. les grandes entreprises. Très bien, Merci beaucoup. balaa may jox maître dafa am li nga wax léegi dafa ma fàttali euh, li li ma maître monsieur si wax sànq si ngoon monsieur si mu ngi nekk euh, John Fitzgerald Kennedy nee na kenn ku fa daan jàngee. moom moo dellusee ginnaaw bi ko yàlla mayee sa tuuti réfectionné lu toll si douze classes def ay table banc defaraat classes yi ba mu gën a rafet comme li nga wax rek bañ a xaar nguur gi. képp ku mën nga action citoyenne nga jànge woon nga def fa dara dina am solo. kon ñuy euh, encourager individu boobu nga xamante ne bëggul ko wax turam. ok oui euh, merci Khalifa bon man euh, ce qui m'intéresse là-dedans. Mm c'est pas parce que ici vous parlez de transparence et euh, je vois pour euh, l'IGE permet au gouvernement de lutter contre la corruption moi je pense que le fond du problème est là hmm. et Bouba a plus ou moins Bouba Ndour kii na laal na xaw est-ce que li ñu fi defagum si contrat yi nga xam ne Sénégal si rapport yi di ñëw ArcelorMittal waaw les scandales euh, Petrotim en ce moment ces dossiers je pense que certains ñi ñi ngi nekk tribunal mais ñëpp xam nañ ne que que à l'époque société civile bi jógoon na dénoncer conditions yi nga xam ne moom nañu signé woon mm. euh, contrat moom nañ négocier woon moom nañ renégocier woon mm. affaire ArcelorMittal alors que. mais maître on est bien d'accord que scandale amagul ay suspicion moo am de scandale mais. damay mel rek ñu jaxase nit ñi si terme wax si. mais scandale wax affaire. waaw euh, dossiers wax si parce que defe naa yooyu moo intéressé. parfaitement terminologie ngay expliqué. mais scandale boobu. ñëpp yi yenn yi au niveau du tribunal de juridiction euh, normalement ñoom on devrait pas waruñu soon sax wax. waaw dañuy waroon bàyyi euh, juge yi def seen. Euh, juge très bien wante. waaw ñëpp xam nañ ne que scandale. maître scandale am la dans l' affaire ArcelorMittal. condition yi ñu ko signé. ak ni gouvernement. oui Macky Sall bi nu mu ñëwaatee revenir sur sur dossier boobu. xam nañ ne dara leeru si. oui soo leen buggee ma ma dem dans les détails. ArcelorMittal. comme comme c'est pas le débat maître. waaw bon d'accord comme c'est pas, pas le débat mais ça ça c'est très important. oui c'est très fort c'est très actuel aussi. waaw très bien. alors boo xoolee boo xoolee ci biir rapport bi dañuy wax ci li nga xam ne mooy modalité d'octroi des titres et permis loolu dafa doon loo xam ne exigence la ci norme bi dañ ko traité njàngat bi ñu ci am mooy euh, te def nañ ko ci recommandation yi mm-hmm. mooy dañoo war a encadrer procédure d'octroi dafa doon loo xam ne engagement la léegi boo xam ne dépassé na sax comité national ITIE. oui mais c'est à ça caractère exécutoire pratiquement. Mm. parce que boo xoolee préface bi. Mm. rapport bi dafa doon loo xam ne autorité bi gën a mag moo ko jël. très bien 30 secondes Charles. waaw 30 secondes. Mm. ce n'est lii. Ah, benn ah. ñaar. Mm-hmm. c'est des intérêts des capitaux colossaux te ñooñu dañ bëgg a xam seen xaalis fu mu dem. très bien allez 30 secondes bu baax mais mais man moom laay wax rek c'est-à-dire que et il faut pas parce que maître dégg naa ko muy wax am na lu ma wax man damay dem ba ci régime bële passé dama ne man aujourd'hui Sénégal quand même quoi qu'on puisse dire y a en cinq dernières années yi lañ fi gis lu bëri man li ma <laughs> intéressé mooy aujourd'hui ngeen ngeen ñëwoon ñu ne ñu li fi jot a xew ah lii la parce que la fi bay way na mbuus la ñuy bañ parce que après c'est dans l'application rek mais béy wéy mbuus mooy que la ñu ba pare pay est-ce que baax na man loolu laa pay dernière question mooy dernière question mooy euh, juste rek sans sans indiscrétion nan ngeen di appréhender euh, rapport yi di ñëw surtout par rapport ak euh, mbiru pétrole nga xamante ni coow rek la jamono ji ci réew mi waaw yaakaar naa ne ñu ngi koy appréhender ak dal quoi ñu ngi koy xaar ak dal ndax boo xoolee instant bi ñu ngi teg ay jéego mm. yoo xam ne dafa nar a calmer débat bi publication des contrat boo xoolee recommandation la ci norme bi. Hmm. mais Sénégal kon weesu na progrès sax significatif. très mais moom dafa teg ay jéego yoo xam ne dafa publier contrat yi. très bien léegi fàttali leen euh, si site bi ñu war a gisee. Euh, euh, kii bi rapport bi. rapport bi ñu ngi koy gisee ci www.itie.sn. itie point sn. E e waaw waxtu wee jeex na benn une seconde. may ma une seconde. <laughs> non may naa la cinq. waaw xam nga ban problème la. waaw problème de communication bi ma am Sénégal. 70 pour cent wala 60 pour cent nit yi jàng na bàyyi leen bind mi ak site internet te ngeen wax ak sénégalais ci langue bu ñuy loolu la dafa am importance recommandation la xool leen yeneen yeneen canaux mën nañ cee tontu sax boo xoolee ci lu gaaw ndax am nañ version boo xam ne version simplifiée la muy comprendre pour agir mm-hmm. dañuy wàcc ci terrain bi demoon nañ daaw Kédougou Saraya Sabadola yëpp distribuer ko foofu te def traduire nañ ko société civile traduire nañ ko li nga voilà Pape euh, euh, oui ma ñan ko temps d'antenne bu génnee fii en casquette euh, si sous a casquette de directeur de programme mu jox leen temps d'antenne ah ñeme nga ko. Ah, dañuy fay alors Papa Alioune Badara Paye jërëjëf ñu fàttali ne yaa ngi bokk ci ITIE si comité bi yaa yor lépp lu jëm ci wàllu gestion des données. ah ñu ngi lay gërëm di la sant foog naa ni xëy na di ngeen am temps d'antenne pour gën a mën a expliquer affaire bi maître Ousseynou Fall maître jërëjëf maître jërëjëf ñu ngi kontaan ci leeral yi juriste bi mokk na mais également politique bi mokk na on est bien d'accord merci d'avoir été avec nous ñëw si gis-gis bi balaa ñu tàggoo. gis-gis bi mooy euh, El Hadj Abdoulaye Seck moom blogueur la alors dama am réalisateur bu bees tonton Mac waaw tonton Mac donc da ma koy jox si moniteur bi merci beaucoup alors mu ne ginnaaw euh, bi presse bi wane ne si budget bi mu ne kon léegi Sénégal. Sénégal daal léegi ak presse bi jàpp si bu ñuy wax waxu budget budget institution yi dañu naan Macky am na nangam Tanor am na nangam Aminata taal am na nangam nee na daal foofu la ñu yemal wax ji daal maanaam wala ñu ne institution bi nangam dañu naan Macky nangam la séddoo kii séddoo nangam kii séddoo nangam nee na ndax euh, après sénégalais yi réew mi lan lay am c'est un blogueur El Hadj Abdoulaye en tout cas. boo xoolee man yaakaar naa day def référence ci benn article bu ñuy wax. Hmm. Euh, ne président am na nangam. am na nangam million par jour ki am na nangam si budget boo xoolee loolu du du du dëgg bi ndax présidence budget présidence. Hmm. am na service yu bëri yoo xam ne dañ leen rattaché présidence kon ñoom seen budget ci budget wu présidence lay jógee tamit. donc c'est une réaction à un article. yaakaar naa loolu lay wax. voilà fan yii gis naa ko moom c'est blogueur. muy nekk kon Sénégal kat léegi bu amee waxi budget mhm. yu jëm ci institution yi. Mhm. duñ ne institution nangam am na nangam waaye dañu naan Macky am na nangam. Aminata Tall am na nangam. kii am na nangam. waaw xam naa peut-être dans le fond day dénoncer ni ñuy personnaliser les affaires publiques rek. Mhm. la la yaakaar. Tanor amul budget Aminata amul mais budget bi bu ñu koy voté c'est pour moi je suis complètement en phase avec lui parce mm. euh, ñi fi xeexoon rek Aminata Tall jël na wàllam euh, Tanor jël wàllam Moustapha Niass jël wàllam mais wax wàll Macky Sall jël wàllam bien ah, moom loolu lay dénoncé wax wàll li muy li je pense que li muy wax ni yëpp ñu mm. muy wax ni yëpp ay ay institution la cest dire que ñoo nekk à la tête institution institution bi benn budget ñu jagle leen ko c'est une question de mais amul lu ñuy voter Tanor Dieng en budget c'est partage du gato au partage, partage euh, euh, indécent partage indécent du gâteau bi stop alors Khalifa Sall euh, mu ne waxi Barthélemy Diaz lay wax mu ne sàkku ñu jugé ko depuis 2011 ñu xaar ba nëgën ni ñu koy jugé ndax dafa am nu mu demee nee na procès Barthélemy Diaz procès politique la Paye loo si xam. waaw yaakaar naa ne euh, procès Barthélemy Diaz ñëpp xam nañ nu mu nu mu circonstances yi nga xam ne moom la événement bi euh, arrivé. mais eh loo xam si développement bi nañ bàyyi justice bi. Euh, def liggéey waaw. waaw xaw ma ndax politique ou pas mais li wolof naan tombé waral ay gaaf parce que loolu yàgg na quand bu ñu xaaree ba contexte bi am. ñu soog ko woowaat ah xel da ciy tey parce que kenn mun a tere ne moo Charles nañ ko juger lu yàgg balaa lii di am quand même. Charles Faye euh, on ne peut pas être plus maladroit. mooy li ñuy mooy li ñuy dénoncer point instrumentalisation de la justice. très bien. waaw tey na xel parce que lu yàgg la ñu yëngalaat ko parce que Barthélemy il parle beaucoup il dérange peut sa ça day day day xaw a dëggal li Khalifa Sall wax. waaw mais c'est pas euh, c'est parfaitement vrai je pense que c'est euh, bu bu bu Barthélémy Dias nekkoon si ginnaaw waa euh, Tanor Dieng wala APR du dem justice ça c'est sûr. merci bis alors tonton Mac alors Moustapha Diakhaté mu ne HCCT mu ngi entre de bonnes mains maanaam loxo ñu ko jox loxo yu wóor la muy loxo Ousmane Tanor Dieng ndax fiable na ku ñu mën a óolu la te xam na bu baax état papis waaw ñu xaar ba mu xool lu muy njëkk produire. on verra incha allah on bon espoir que dina dox. homme d'état la loolu kenn amul ci benn werante. booba léegi. ah mais naa day ànd ak euh, APR dem ci législative. <laughs> professeur. xam nga problème bi euh, Khalifa. Hmm. Euh, Ousmane Tanor Dieng ay homme d'état yooyu kenn lam-lamewu ko. Hmm. ay compétence am kenn lam-lamewu ko. Hmm. waaye nag c'est des gens qui ont suffisamment rendu service. am na ay ndaw am na ay compétence nañ leen dem jëli feneen non mais mënoo lu ñëw nga dee Tanor Moustapha nangam nangam ce n'est pas possible il faut qu'on soit sérieux il y a d'autres compétences dans ce pays là on ne remet pas en question les compétences de monsieur Dieng mais il a suffisamment rendu service euh, ko retraite ah oui <laughs> il a suffisamment rendu chapeau il porte le costume il porte le costume maître moom la ñuy waxaat moom la wax di ko waxaat <laughs> moom rek nekk fii xa Ousmane Tanor Dieng c'est le partage du gâteau. très bien alors Bistapha ñoo si Bistapha Bistapha professeur Malick Ndiaye mu ne classe politique bu Sénégal il faut ñu changer ko ñu soppi ko ndaxte kat euh, te nu mu gën a gaawee moo gën mu ne parce que buñ buñ nekkee ci pouvoir bi ak buñ nekkee ci nguur gi dañuy dañuy dañuy soppeeku complètement ndax kat nee ne dañu am culture goo xamante ni mooy culture athéisme de valeur maanaam tey jii. amatuñu benn valeur gëmatuñu dara te nee xam na gis na bu baax li muy wax tey teg na ci ne euh, euh, loolu dafay tekki ne ñoom ñooñu gëmuñu dara ci lu ñuy wax ñoom politiciens yi. mo Charles dafa mel ni lii wax nga ko sànq. chapeau bas prof. wax waxeet. wax waxeet yéen a ko fi njëkkee de. yéen a ko fi njëkkee alors professeur. non mais on parle li ñuy wax. non mais non daanu ko daanu ko maître waaw waxeet ma wax la paternité. maître Abdoulaye Wade les promesses jamais tenues. les promesses jamais tenues. waaw mm-hmm. mais c' est c' est c' est vrai que man xam nga j'aime bien genre déclaration déclaration daf may non non non mais daf may neex xam nga fan la may neexee. si ku neutre. <laughs> ah Malick Ndiaye neutre waaw non ku neutre mooy que bu musul dem ànd ak ànd ak ah. wala def taxaw fee rek. waaw <laughs> <laughs> mais xam nga professeur <coughs> li mu posé dafay. dafay andi sax beneen débat bu gën a xóot encore ah j'espère que je le serai toujours <laughs> parce que lii ni valeur beeg éthique yi yëpp lay mais c'est que euh, au Sénégal les gens font la politique pas pour la politique parce que développé gis-gis la de parce que boo xoolee boo xoolee waaw

dañuy wax ci ay wax di ci hmm. delluwaat ginnaaw mu doon ay enga dañu war a am principe professeur l'athéisme des valeurs l'athéisme des valeurs. waaw il faut il faut ñu taxaw si après l'athéisme des valeurs non non non non non gis moo contre moom déedéet déedéet Khalifa duñ fi nangu moo contre moom. non non gis-gis yëpp amul contre moom c'est pas possible. alors dernier ma jox leen question non bàyyi ko mu wax. je suis interdit de parole. alors jàll na l'athéisme des valeurs professeur. moom kay comme comme waa ji sensibiliser na mu veto veto veto na kay. Ah, ah, il faut ñu annoncer moo contre moom il faut mu dellu si sax. waaw du moo contre moom où est où est la liberté d'expression sur ce censuré euh, aujourd'hui. waaw j'ai été vraiment censuré mais monsieur Malick Ndiaye c'est mon ancien professeur de sociologie pendant trois ans au département de philosophie. mais yaramam ma mais l'expression athéisme des valeurs ça ne peut pas se en truc. waaw c'est fort donc li mu wax rek mooy. vraiment moral jóge na ci champ politique bi loolu ñun ñëpp ñoo ah, am mais comme ni ko biiba buuba waxee loolu nañ ko appliquer d'abord les hommes politiques yi nga xam ne ñoom tey bu verte ñu vert c'est pas gis-gis ñu ñëw si bisi mujj alors mais moi j'adore l'expression athéisme des valeurs alors vingt quatre ans de carrière doy na euh, nee na ñoom valoriser nañu maanaam jox nañu seen métier mi valeur boo xam ni nekk nañu ay personnalité yu ñu respecté en tant que porteur de voix ci réew mi Yékini ñu koy ñaanal retraite jàmm pay waaw sportif yi <laughs> noonu lay demee rek dañuy daal doon tollu seen i <coughs> sëmam daanu euh, noonu lay demee rek. maître kon bonne retraite. man euh, dañ ko delloo delluwaat njukkal. Hmm. parce que dëgg-dëgg euh, <coughs> ni ñu koy waxati jàmbaar la. waaw jàmbaar la très waaw parole d'un champion roi. Papis non il faut dire. félicitations à, à mm. pour le mot réalisé dans sa carrière. Mm. Le roi est mort, vive le champion. Euh, Et c'est qui quel champion alors hein? nouveau, Le roi est le roi, le mort, vive le champion. Vive le champion. Non, j'ai le a gagné les formidable le roi des arènes mais mais a <laughs> chaque fois ma dem ci làmb ji. ma gis ancien champion yi. ñu si gën a bëri waxuma ñëpp damay rus xam nga lan moo am solo. Hmm. gis nga ku mel ni Yékini pas li mu fi def ngar ngir yàlla ak yonent bi rendre na service dëkk bi boo xam ne kii warul am 60 ans nekk fii di galérer dañ ko war a teel a accompagner jox ko ay ay ndomba tànk ci ci avenir sport bii di làmb parce que def na ko fi. moo gën di ko tàcc bu subaa ñu fàtte ko loolu mooy wax ji. professeur. waaw jàmbaar la vraiment bokk na moom Tyson je crois ñiy renouveler lutte bi. waaye nag damay taxaw tuuti parce que bu ne 24 ans de carrière ça suffit mais xam nga boo ko seetloo gaa ñi dañuy xa dañuy xaw a fàttali da nga war a dem ba dem jotee. Hmm. maanaam bul gàkkal woy wi. bul xaar ba ñu commencé di la dóor ngay daanu ngay dangay ngay jeexal sa carrière. Hmm. ba nga cee toll te mu jeex na nga dem sa yoon. Abdoulaye Diop day wax ni refuser de mourir sur la pelouse. waaw nguur kenn ko ñëpp maître. la table pendant qu'il est temps. de quitter. cette table de jàkkaarloo maître jërëjëf c'est un honneur vraiment de vous recevoir revenez quand vous voulez Paye merci beaucoup excellent week à tous ci melax yi xawe la yeneen yu mel ni lu doon di ngir liberté